gadget kecil, gadget kecil, sama gai, sama gai. jaja, gadget, gadget. Sama gai, ini temen mesti shake lah. Mesti shake. Depi Brooklyn, New York. Gadget kecil. Lu dekat bawah. Gai, namun nalan. lu best, lu best, ku dugg da ngay laaj ku dugg da ngay laaj monsieur Cheikh la Dave Dave le Saint-Louisien dommage dommage que Mansour dommage que gagné na La le naa président Sonko waaye yaa du bruit mais ah. on va faire avec dinaa yuuxu pour ñu dégg waaw nu mu demee nu mu lu encore une fois di leen féliciter ci victoire euh, ci victoire euh, Yewwi Askan Wi jaajëf ma Ba tey nag dama ñëw def analyse fan la combat bi toll lan moo tax dégluñu Yewwi Askan bi ba ba léegi man waaw waaw Mansour fay dafa rëcc Mansour Faye dafa rëcc loolu yëpp mën nañ ko mais fan la ñu toll ci combat bi parce que gis nañ Maître Diouf génn

yow askan bi gañewul Macky Sall moo gañe ak 80 pour Sonko village la yor bon ñom ñom tant que jëlewuñ fi Macky Sall Maître Diouf du nopi même bu fekkee ne sax législative bi dañu gañ di ngeen gis Maître Diouf dina am lu mu wax mais il faut que ñu def jangat ci élection yi parce que euh yow askan bi nag mën nañ leen comprendre parce que dañoo sonn président Sonko dafa sonn un mois yoo xam ne gisoo seen njaboot gisoo seen jabar gisoo seen yi ngeen baal ci mbuur waaw ah, après damay dem déplacé wu. xaaral de bruit ici xaaral ma fële waaw oh, dafa bëri bruit quoi xaaral ma déplacé mais jàngat bi ñuy jàngat rek.

refuse refuse de voir la, la réalité en face. Maître Diouf refuse de voir la réalité en face. comprendre Bon, gars du nous attardé au ci mais élection il a rien de comprendre que ne victoire là, victoire là. jàngat buñ de pouvoir, dafa pouvoir, a dafa war sori trop te gisuma kenn def jàngat boobu mooy ne yàlla dafa ànd ak ñun li tax yàlla ànd ak ñun mooy le 23 janvier ba ñuy def suñu élection ci le Burkina Faso daa di def coup d'état gars yi laaj leen partagé gis nga coup d'état boobu dafa tiital Macky Sall le 23 janvier ndax man am na benn benn ay ivoirien bu ma seetaan benn activiste ivoirien bu ma seetaan bu wax ne le 23 janvier Alassane Ouattara nelawul dañ ko dañ ko teel yee ci suba bi di ko wax ne coup d'état bi nu ngi waaj am Alassane Ouattara Alassane Ouattara yow commencé di woo euh, bëggoon na sax yóbbu ay militaire ci frontière bi demoon na ba leen di yóbbu waaye ñoom jël ay militaire bu waaj pour mu dem jàppale Kaboré mais dafa échoué mais ci la 24 bi ci la euh, euh, commencé di woo ñu Macky Sall woo ñëpp kon Macky Sall jour boobu dafa tiitoon Macky Sall dafa tiit parce que gis nga yàlla bu lay buy nangu sa nguur ni mu koy nangoo moo doy waar. waa waa Guinée waa Burkina xaw ma ndax ñoom ñoo ko tey xam ne Sénégal day def élection ñu def seen coup d'état ci jour boobu parce que xam nañu boobu Macky Sall ñëpp xam nañu dafa capable. moo tax Burkina Faso seen seen coup d'état bi daf ñoo arrangé ñu ndax dafa tax Macky Sall bu ndoroon sàcc élection yi ñemetul woon sàcc élection waaye dañoo gis ne élection yi. Pikine Pikine ah, Timbo daf kaa sàcc parce que Cheikh Dieng moo waroon gagné mais PDS xamuñu ndax dañu ànd ak gouvernement bañ a xeex xamuñu PDS seen affaire leerul parce que yow nan la ngay gañee Pikine ba pare di wax naa da dem tribunal te ñëpp xam nañ ne eh, eh, eh, ku dem ak moom Macky Sall ku dem ak moom tribunal da lay gagné lan moo tax Pikine ba ñu gagné. génn ñu ñu ñu dégg naa nag tribunal Pikine bi dañ koo taal jaajëf Béya Dieng tribunal Pikine bi dañ ko taal jëppeet waaye waaye du ay manifestation du ay manifestation ñu bëri dañu yaakaar ne nit dafa am nit ñu dem taal ko mais xam na yeneen information yu génn yu wax ne est-ce que du waa APR ci seen bopp ñoom ñoo taal tribunal bi parce que document yi fa nekk pour wane ne

لم وخ با عليان فاصون سات بو وار بو خامل بالله والله تعالى بو ني بايي مو جال ليجيسلاتيف بو نيوي ماك لا ميم شوز مننا ديف لا ميم شوز وا بي دي اس دانيو نياك فاي واي لو لين دال سان افير لا باسكو نيون تاميت با نيو خاني سونو ليس نيو دو بوكو بيكين اسكو وا بي دي اس نيو ني Cheikh Dieng li mu bëgg dafa yomb nee na waa waa Pastef dañu waroon génn ñu ne votel leen wàllu askan bi xanaa ñun bëgguñu dara xanaa ñun ñun ñun ñun bëgguñu dara dinañ dem ci élection nekk ci élection Ousmane Sonko di wax waa yeewu votel leen Ablaye Wade xanaa ñun dañoo dof Pikine bu ñu waxee votel leen Ablaye Wade Pikine ñoom dinañ ko récupérer wax ne Sonko nee na votel leen wàllu partout dans le Sénégal heureusement nous sommes Sonko Nous Wa PDS bu ñu Pikine di ñu faire bu ñu Sall dina jaar kaw c'est le problème ndax ñun tamit ñun tamit ba ñu xagne Pikine jaajëf ñu ne do leen nous mam wala ñu gis kenn di wax ne dañ leen gis nañ mu dem ana Assane Diouf انا الشيخ حسن جوف داي جاي نا جيرل داي جاي نا دافا ام نيت لا موتاخ جينول اي بويام ني دم بيكين ني خيخ ني ني خيخ با ني ديلو لين بيكين بون لين بون ساكي بيكين نون سون يون نيكوت بي دي اس سوخلا وون لين تي ياو اسكان بي لول فوك مو ليرت بوب ني بوغان غي داني بوغان غي داني ني ген دي ني ساغا نون وا باتريوت دي ني ساغا دي واخني نون نينا جاي نين بالما نينا دينا دوخان داي képp ku taxaw wax ko ne Macky Sall nga àndal Bougane Gueye nee na dina doxal sa ndey gars yi laaj leen tamit laaj leen partagé waaw Bougane Gueye daal nee na képp ku ko saaga képp ku ko wax ne da nga ànd ak Macky Sall dina doxal sa ndey <laughs> gars yi ngeen loolu xam nga lan moo tax parce que il est déçu Bougane Gueye dani fu mu teg boppam dafa dem ba ci biir mu xam ne eggu fa loo tax mu mer mu jënd di saaga Bougane amul dara dara am li mu am Bamba Fall moo ko jox ak benn maire bu nekk Rufisque te ñooñu ay maire la ñu woon Bougane le grand perdant wàllu askan bi c'est le grand perdant PDS c'est le grand perdant ah lu ah, mu tudd ci AFP Moustapha Niass c'est le grand perdant Moustapha Niass dañ ko humilier Kër Madiabel dañ ko gagné Kër Madiabel euh, Bougane Mbaye ñoo ko tey ñu génne audio bi ñoo ko tey pour saaga nit ñi mais Bougane dafa war a xam ne il ne représente absolument rien te am na kenn ko def analyse bu baax man analyse bu sax xalaatuma xaw ma ban activiste moo ko def defe naa ustaas bi moo ko def ustaas xalifa xaw ma xalifa bu bu bu bu bu Barthélemy Bougane dafa ñëwoon pour yàqal yow askan bi parce que yow bu dee saint yi nga dëkk bu dee Saint-Louis nga dëkk lan moo tax demoo nga jéem a tëkk Mansour pay wala dafa xam ne bu demee foofu tamit Macky Sall day def ndigam foofu la waroon dem lu bokk Bougane dafa waroon dem Saint-Louis tey Bougane bu bokkoon Saint-Louis am na nu muy demee Aba Mbaye mooy gagné am na nu muy demee Aba Mbaye moo gagné Bougane neexul ba neexul mais ak yu mu posé yëpp dafay mel ne moom Macky Sall lay liggéeyal moo ko def yow nga waroon ñëw bokk ci yaw askan bi ñëw di wax ay waxu ay couleur ak ay magenta ak ay lu ma xamul lépp rek teg bët Ousmane yaakaar ne da nga am doole dem Mermoz ne dafay jéem a tëkku Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz duma ko duma yu metti dégg naa Barthélémy Diaz moo gagné bureau de vote yëpp ci Mermoz Bougane c'est le grand perdant le PS c'est le grand perdant PS bu duloon Alioune Ndoye ah waaw non jarul jarul jox confiance parce que c'est un mégalomane xam nga c'est un mégalomane fi mu teg boppam ne egul am xaalis am télé tey nak lu ko metti moy Ahmed aidar waaw aji Mergane aji Mergane c'est vrai dafa ne liste parallèle yëpp Macky Sall te ba muy cité dafa wax jëm sa bopp lan motax mom moom mu dal aji Adji Mergane ci la xaw ma aji ma Adji ci kanuti xaw Touré lan motax tax buggaan dalul Adji Mergane Adji Mergane moo ne gëm sa bopp ci Macky Sall lay liggéey gars yi laaj leen partager leen mais de toute façon gars c'est pas important ne vous attardez pas sur ça

Bougane def na erreur dafa waroon ñëw mu bokk ci yow askan bi am na muy demee ñu def ko ci liste bi mu nekk député waaw mu nekk député mais fi mu nekk nii soxlawuñu kenn PDS bugguñu mu ñëw yeewu askan bi parce que PDS wane wu amul dara lu ñuy représenté Bougane Gueye Dany soxlawuñ la ci yow askan bi gis nga euh, Thierno Bocoum bu fi nekkoon di rëy laam di wax naan euh, Khalifa Sall di nga am affaire ak man Ousmane Sonko yow laay waxal Thierno Bocoum soxlawul nga ñëw Decroix pas Decroix ngal la bul ñëw bul ñëw yéen ñëpp dañ leen di folli Decroix xaw ma député nga xaw ma bii mooy sa dernier mandat Decroix na am Abdou mbay bu ko neexee mu ñëw Mamadou Lamine Diallo tekki tekki bu ko neexee mu ñëw soxna kii Thierno Alassane Sall bu ko neexee mu ñëw mais sox kooku sax est-ce que jar naa wóolu Thierno Alla Sall est-ce que jëm naa parce que ñun li ñuy bañ moy ñu jël depp jox la suñu mandat député après nga dem transmet ci Macky Sall ñun loolu la ñuy bañ est-ce que Thierno Alla Sall Sall jarna jarna wul naa loolu ça reste à prouver loolu ça reste à prouver Thierno Alla Sall moo war a prouver boppam bu fekkee fu bëgg bok ci ñu mari teew ñaan mari teew ñaan koku jarul wolu bu dul woon moom jël nañ seen bu dul mari teew ñaan jël nañ seen motax buñu bu ay pap alignant nekk fi dinañ leen jox ay interview ñaari interview ah Mary Teuw Niane yooyu la war a bàyyi affaire bi amul sentiment affaire bu amul sentiment képp kuñ fi gis nga dugal benn tànk yow askan bi dugal benn tànk euh, Macky Sall dañ la war a dégager Akhenaton mu ngi génn di dal ci sëñ Mansour si jàmm kii di ko saaga euh, Ousmane Tounkara di ko dal dal yu métti mais bu dee vidéo bi Akhenaton wane dëgg la Mansour Sy Djamil moo toog di tagg xot di jàppale xot te mu leer na la boo demee xot daf ko jox xaalis ñu ne toon du ci wax lu tax ba du ci wax Ousmane Tounkara da ciy wax Mansour si Djamil lan lay bokk ci ñun ba pare di di jàppale benn ministre boo xam ne ministre bu gën a mag ci Macky Sall ministre des budgets xaw ma yëkkati cent millions tuur ko yëmbal si pour gagner ñun gros poisson yi lañ soxla ñu daanu tey dafa mel ne Mansour Sy Djamil rek demoon di dimbali Aliou Sall Akhenaton génn vidéo bi di ko dal Ousmane Tounkara di ko def ay attaque personnel yooyu war naa ñàkk gis nga ñun activiste yi ñu fi nekk di xeexante suñu biir comme ça Ousmane Tounkara boo nekkee le leader des liveurs waroo fi nekk di attaquer beneen liveur boo xam ne aussi nit ñi apporter Akhenaton mun ñuy apporter man d' accord ma ci li muy def a 100 pour cent d' ma ci li Tounkara di def à 100 cent mais waroo jàpp. di di jël ay vidéo Mansour Sy Djamil du ko dugal sa page Facebook mel na ku koy defal promotion yow Ousmane Tounkara boo jógee di wax ne dafa am de de des de la plume ñoo xam ne Cheikh Yérim Cheikh Yérim dafa toog ci Sénégal ci ci 7TV ci 7TV mu ne may mënoon du Faye yow sax xam naa boo demee Amadou Ba woo na pour ñu jàppale ko man mii woo na ma pour ma jàppale ko may mënoon Ndour xool ko naan ko bul ñu bul dugal bul ñu dugal. parce que dañuy wo journaliste jox len xaalis di len wax gennal ma vidéo bi waxal ma li waxal ma la lolou lay nduru ci Tunkara je suis très déçu Tunkara jël page japp Mansour Sy jamil Mansour Sy jamil Mansour Sy jamil Mansour Sy jamil yow bu la nexé nga jox sa abi bu la nexé nga jox sa abi abi nga def ben poste rek doy na nga bind ben poste ton bayil Mansour Sy jamil bi ngay attaquer ah ci ñun la bok Tunkara boo xoon lolou mu yam fa mu neex mais nga wax lolou di génne ay vidéo di génne ay ay ay photo naan xool leen Mansour Faye Mansour Sy Djamil ngi jàppale euh, waa Pikine mi ngi def caravane xool leen si Sy mu mi ngi jàppale waa Thiès mais Mansour Sy Djamil mënul dugal benn tànk di génn benn tànk loolu sa grave nga toog ak Mr Hot ay milliards la yor cent millions joxe na ko kon Hot du fekk ci yàlla naa dee Hot du fekk ci yàlla naa dee Mansour Sy Djamil naan non élection yi du national ak dugg na fii ku nekk sa gox yaay décidé lu nga war a décidé heureusement bañ humilier yoo xam kii est ce que jar naa wóolu Mansour Sy Djamil bi est ce que jar naa def député nga dem jox ko député après mu dem transhumé dem bokk ci Macky Sall parce que Macky Sall bu ñu nangoo assemblée bi ah ñun ñoo yor majorité Macky day jël ay millions pour fay yenn député yi pour ñu ñëw transhumé ci ñoom te loolu loolu.

foog faut nga prouver da ngeen war a comprendre benn affaire élection député ak élection maire bu benn Thierno Alassane Sall li nga am nii ci maire doo ko am ci député doo ko am ci député parce que nit ñi dañuy yàq seen i voté Thierno Alassane li nga am ci maire doo ko am ci député billaahi lu leer laa la wax gars yi kon képp ku ànd ak Macky Sall Sénégal yi suur nañu daal bu la neexee Thierno Alassane Sall bu la neexee demal demal ci Macky lan moo tax nga am nga gañ Idrissa Seck Thierno Alassane Sall lan moo tax nga gañ sa Seck ci bureau de vote parce que sa Seck dafa dem ci Macky Sall looloo tax yow mii Mary Teuw Niane demal ci Mansour Faye mu ngi naan mooy ñu ngi xool ah Mansour Faye mu ngi ko wax ne pour mu liggéey euh, Mary Teuw Niane mooy on va dañ fiy nekk discuter fii amul lu ñu discuter képp ku fi ànd ak Macky sa sa bopp nga ko def. ñoom dofuñu de dofuñu de du ñu ñëw rek and ak Macky Sall de dofuñu dañuy ñëw and ak diew yi dem ba nekk député mu leer na sen 5 ans la ko mu 6 ans woor na après ñu dem commencé dem di liggéey ay Macky Sall ñu ci bëri ay jaam ñu Khalifa Sall ya yor doole de Mbodj ya yor doole Ahmed dara ya yor doole gaay yi ñu fayda gis na waa yow askan ñàkk ñu fayda xam nañu kan la nit ñi soxla ak ku ñu soxlawul Thierno Alassane sax booy xool soxlawul on n'a pas besoin de lui parce que ñoom ñoo fi nekkoon di jaay dañuy jéem a xeeb Sonko di jéem a xeeb Sonko Sonko duma na leen ñun ñëpp kanat yi wax leen ma kan marito ñaan mosuma ko woon nan ngay bokkee ci Macky Sall nekk ministre ba pare ñëw génn commencé di xas maa ko fay naan dafa sàcc lii gars laaj leen partagé leen loolu mënul nekk man man wóolu ma ko woon marito mais boo gisee Pape Alé nekk fii di ñu tegal ay marito mais pourquoi au nom de quoi Pape Alé dafa war a xam ne moom moom si ñun la bokk si ñun la bokk mu wax ko mu bañ koo wax si ñun la bokk na bàyyi lem-lemal ak layam-layami Dambodj di wax Dambodj nag yàgg naa ko xas mais je dois avouer que ndumbelaan bii mu def man summi naa sama mbaxane pour Dambodj Dàmbooj leen rek a taxoon mu koy critiquer mooy ba mu ne Sonko warul nekk maire de Ziguinchor loolu taxoon ma dal ci kawam ndax tey l'histoire m'a donné raison Dàmbooj leneen taxoon ma dal ci kawam mu dem di ànd ak ay coalition citoyenne le peuple Dàmbooj da ngay war a am fulla am fayda gis nga ñoom Clédor ñoom Karim Xurum Xaq dañ lay tardel ñoom député lañ bëgg nekk Karim Xurum Xaq nëbbutuwul Karim Xurum Xaq nëbbutuwul nee na député la bëgg nekk dàmbooj moo war a muus gis nga performance bi mu def ndumbelaan bii dàmbooj bu nekkul député ci moom la dàmbooj bu nekkul député ci moom la na ñëw Pastef na ñëw Pastef lan la ci ragal dàmbooj vraiment man yàgg naa ko xas yàgg naa xas di wax mister layam layam layam mais saa yi man mister Cheikh bu ma juumee dama naan juum la dàmbooj li mu defal Sénégal keroog ci ndumbelaan ba ay professeur xaw ma Sanusi la Sanusi Sanusi la tudd xaw nekk fa di jéem a xalamal Macky Sall dàmmooj dal leen dal yu métti dàmmooj keneen kan la fi keneen kan la dalaat rakku ci taalaa bi dàmmooj dal na leen dàmmooj li mu wax amoon lu ma ci teg moom nee na bëggul député te dàmmooj patriote la waaw man li tax ma ne dinaa ko sumil mbax ne la parce toogul fenn mu ne dafa bëgg nekk député waxu ko de karam kum xaq moom daf bëgg nekk dëpp am na yoo xam ne jarul wax karam kum xaq waroo toog di wax ne dama bëgg nekk dëpp nga war a bàyyi nit ñi tabbala député dàmbooj bu ko neexee mu ne dafa bëgg nekk député parce que dafa xam dossier yi dafa mën a xeexal Sénégal keroog j'étais fier de lui billahi numelaan bii gars yi ku ko seetaanul demal nga seetaan ko numelaan bii mujj ñëpp xam nañ ne man Euh, euh, euh, mister layam layam bi <laughs> yàgg naa ko daal mais vraiment Dame Mbodj mérité na nekk député billaahi wallaahi taala dafa xam dossier yi dafa yàq Macky Sall bëgg Sonko waaye lenn rek la war a def na bàyyi layam layam yi mu bàyyi moom laa gis Dame laa gis koo xam ne bokkul yeewu askan bi mais koo xam ne war na mën nañ ko mën a jël ne ko da ngay bok ci liste bi fu sori nak ba fi may wax ak yeen ni kenn rek la gis ko xamne ne peut-être ñaar ñet ñet dal la gis ño xamne mën nañ leen jël bien que ñu won yow askan bi ñu jël leen parce que dañuy apporter xam nga kan Dambodj Mamadou Lamine Diallo Tekki ak Abdou may ñet ñoo la xamagum Dambodj bo gisé la yi mi def fu mu dem

ci bopp yi na bopp na nekk ci numéro numéro 20 Dame Mbodj warul génn ci numéro 20 ba 30 ba 40 parce que daf ñuy apporter voilà loolu benn témoignage la boo xam ne dama koy defal mista layam layam yi kooku moom soxla nañ ko mais ñi fi nekk ñëpp di wax ne damaa bëgg nekk député ñu ngi def erreur kay soof sama waay la kay sama waay la Baye Dieng kay soof sa waay la mais kay soof warul toog di wax Je bëgg nekk député Marat. parce que gis nga am na ne si def da ngay wàññi boo que c'est-à-dire vous possible France nga vous mais bul vous France Vous am passé France te yéen li ngeen liste parallèle kay fait da liste parallèle vous avez yow askan beneen activiste maam seen ne moom it day def listam mais kon ñooñu di leen votel loolu yéen Macky Sall ngeen di liggéeyal mais Kayz wax na ba ne bu ko yeewu askan bi jëlee loolu sax d'accord ñun liste parallèle bugguñu ko ci diaspora bi diaspora amul benn activiste bu war a génn naan day def liste parallèle parce que Kayz foofu tey bu nee day def lenn nag d'accord naa bu la neexee nga ne gars yi dimbali leen pour nga préparer sa bopp parce que mérité na ko parce que kay sopp mérité na ko mais li li ngeen ko mën a def mooy bu nee dafa bëgg nekk député ngeen dimbali ko ci xaalis pour mu préparer wu mais pas pour léegi pas pour léegi mais pour mu préparer wu mu am xaalis bopp am am euh, pour en cas bu ñëwee Sénégal bu ñu ko dalee jàpp mu am avocat bopp loolu dàkku naam non c'est pas pour rigoler. yaa man activiste laa Kalif moom bu question ne dafay dafay xeexal bopp mais dafa patriote ni mu nekkee patriote rek la rek dafa nekk patriote xam ne am na mën na indil dara Sénégal mais dafa am yoo xam ne bu ko ut gis nga dàmboo ñu ngi nii utu ko tey ma ko koy proposé bul ut bul ut waaw parce que Kalif li mu war a xam mooy moom moo ne du Pastef moom moo ne du Pastef man dama ñëw ma ne Pastef laa mais man soxlawuma soxlawuma député diaspora soxlawu ma ko billaay wallaay taala xam nga lu tax même su ma ko bëggoon damay sonal sama bopp même Ousmane Tounkara bu bëggoon député diaspora day sonal bopp parce que fii New York dafa am Pastef New York ñi fi nekk cinq ans six ans di liggéeyal pour Ousmane Sonko nga yaakaar te am na élection yi passé am na ñu ñu présenté woon nga yaakaar ñoom dañuy ñëw rek ñu jël lépp jox ko Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara loolu la xam moo tax mu ne moom tam mu ne présenté wul même bu présenté woon Pastef duñ ko ko jox dina am nag ñu bëri yu ko woteel mais loolu baaxul ci yow askan bi parce que loolu liste parallèle la kon activiste yi bàyyi leen di wax dama bëgg nekk député lenn nag am ngeen droit ngeen wax yéen xeex leen xeex leen ba élection yii buñ ko gañee ñoom Ousmane Sonko jox leen seen wàccuwaay ku mel ne Issa Diène laay bi ma mujj seetaan dafa mel ne kontaanu dafa mel ne kontaanu usa Diène mën na am nag je me trompe c'est-à-dire activistes yi di leen liggéeyal il faut ngeen jox leen seen àq mais gis nga yéen activistes yi da ngeen di sonn seen bopp barki rasool laay da ngeen di sonn seen bopp Ousmane Sonko mënul def lépp de yow askan bi ay politiciens ñoo fa nekkoon te ñu ci bëri ci système bi lañ bokkoon balaa nga xam ne ah non mënul nekk député Tounkara moom loolu la xam moo tax mu ne présenté wu gis nga balaa nga xam ne ñiy ànd ak Ousmane Sonko ñu ci bëri ci système bi la bokk xaaral ba législative bi dañuy mel ne ay dëmm billahi wallahi taala ku nekk day bëgg turam bokk ci list bi fu sore tey senegal ñaata député la am wax leen ma senegal ñaata député la am que bu 140 xaw ma xaw ma 160 xaw ma sax wax leen ma assemblée ñaata député moo ko am déjà Macky Sall non dafa mel ne Ousmane Issa Diène ni mu waxe dafa mel ne daal gars yi respecté wuñ ko quoi ni ñu ko war a man daal sentiment boobu laa am sentiment boobu laa am que ne élection yi bu ñu jëlee ñeneen nit yoo xam ne du ñu dara def leen ay maire ak yooyu ay nit yoo xam ne kenn xamu leen ñu jékki-jékki def leen ay maire ñoom dafa mel ne dañ leen di commencé xeeb waa ay Ousmane Issa Dieng dafa mel ne dañ leen di commencé xeeb te loolu bu amee man du ma bett du ma bett parce que gis nga Pastef Ousmane Sonko génn na fi di leen xas liste yi gars yi dañ doon xëccoo comme ay dëmb xool leen grand yow en 165 députés waaw kay 165 députés xam nga ne ku ñëpp ci 60 60 61. 60 premier yi doo député parce que déjà Macky Sall day élection déjà bu gars yi xulli Macky Sall day sàcc élection ñu ngi fi nekk nag di yuuxu di célébrer wooyu gagné nañu gagné ñu toog leen foofu di xulli rek toog leen foofu di xulli parce que déjà Macky Sall mu ngi waaj élection mais avant may wax ci loolu naa wax ci ci li may doon wax léegi il faut que ñu jox activistes yi seen gëdd man soxloo ma dara billahi wallahi taala man liggéey laa am fii yàkkamti naa dem liggéey pare man man boo xool sama combat sax mi waaj jeex parce que man li ma bëggoon mooy lii rek man xam nga mooy sama fay xam nga lan mooy sama fay toroxalal leen ma APR toroxalal ma Benno Bokk Yaakaar toroxalal ma Macky Sall ba mu jóge man loolu mooy sama victoire billahi wallahi taalaay soxlawu ma poste mais nag ku mel ne pay soof ku mel ne Tunkara ku mel ne Maam Sène Issa Diène gars yi bu ñu gagné législative wala président Sonko bu demee ba nekk président 2024 ñooñu suñu bëggee ñibbi Sénégal war nañoo mën a ñibbi bu ñu demee ñu ñu am salaire yu baax am liggéey yu baax gën a liggéeyal Sénégal mérité na ku ko ci bëgg laaw parce que du ñëpp ko bëgg ku ko ci bëgg laaw kay sof war na mëna mérité dem Sénégal mais kay bu leen sonna sen bopp isa Diène bu leen sonna seen tout Tunkara même Tunkara bi ngeen gis bu leen sonna sen bopp gis nga gaay bu ñu xasse gagné pare ngeen dara do leen ko am parce que yow askan bi ñu fa nek dañoo large xol leen soxna ay Mbodj mi ngi fa Ahmed aydara mi ngi fa Khalifa Sall mi ngi fa Ah. Sonko mi ngi fa te ku ci nekk ay junni junni nit la topp ku ci nekk ay junni junni nit loolu topp Pastef rek am na 604 Pastef rek am na 604 da ngeen yaakaar ne ñoom Sonko dañuy bàyyi 604 yooyu dem di woowee activiste di leen dugal ci seen gouvernement wala di leen jox ay poste moo tax képp ku fi xeex te xeexuloo pour Sénégal da nga sonal sa bopp billaay barke la solay politiciens yi dinañ leen gañal de ñun ñoo leen xeexal pour gañal leen mais dara dara doo leen ko ci am lu leer laa leen wax man de man de heureusement amu problème boobu mais nag sama situation dafa mu dëkk situation gars yu bëri ndax man lu bon bon am naa samay papier mais am na ci activité yoo xam ne xëy na seen këyit génn pareegul ñooñu bëgguñu Europe fii bëgguñu fi dara xool leen dëkk bi glace rek la nga dëkk yëpp glace la bëgguñu fi dara mais nag dama leen di teel a avertir kay soof Baye Dieng wax leen ko mu bàyyi wax yooyu yi jàppale leen ma bu bëgg nga xool nga jàppale leen ma ci xaalis ma xool ndax dinaa nekk candidat wala nekk candidat parce que leen dinaa la ko tey soog boo leen bëggee bu nekk candidat leen la ngeen di def danañ koy cotiser xaalis waaw parce que bu ñu demee bu gis ne eh tey si yor na 20 millions xëy na bu boobaa dinañ ko mën a dundal gars yi boo yorul xaalis duñ la jàppale man foofu laa waxee kayis bu buggee wane doole la wane capacité que ne moom mën na dajale xaalis parce que politicien soxlawul dara lu nit ku am ay nit ku am xaliss gis nga isa Diène tamit non bugguma isa Diène ni mu waxee waxul carrément mais ni mu waxee man je sais qu'il est un peu frustré parce que waxna bu tuddu ño xamné ken xamulén won ay maire ay maire yi kenn xamu leen ah kenn xamu ñu ñëw jël leen rek tek leen nii ni mu doon waxé daal. dafa mel ne dañu jël ay nit yoo xam ne liggéeyu lu ñu nit Pastef liggéey bi ñuy wax tey ñu ngi nii nekk ay maire du question jalousie du question dara mais man xam naa fi muy waxee xam naa fi muy waxee waaw ñoom nag ñoo war a am fulla am fayda boo amee nit fexeel nit ñi affaire bi question da ngay ñaan xaalis tey soog bu fekkee da ngeen bëgg mu nekk député da ngeen koy jàppale j'ai pas vu le début de live live bu Issa Diène il y a deux jours la y jours il y a deux jours du y de du jours. Il y a le live.. Il y a deux ngeen le ko a deux jours. Il on dirait qu'il est un peu frustré y a dafa Il commencé jours. Il campagne bi jours. Il xam nga campagne bi Il y a kenn jours. Il campagne man a affirmation gratuite mais damay wax rek ni y a deux pas Il y l'impression mais Il y bëgg kay jours. boo leen bëggee ñoom Sonko yëpp da ngeen koy dajaleel xaalis bu kayis ne damaa bëgg nekk jëpp gars yi jàppale leen ngeen rapidement ngeen nga dajaleel ko 10 millions wala 20 millions bu boobaa ñoom Sonko dinañ ko déglu dinañ ne ah kii kat kii kat am na am na mbooloo waaw mais di am ay mille vues live loolu rek doyul de loolu rek doyul politiciens yi seen intérêt lañ ci nekkal. ay kaymaa lañu waaye yow askan xaaral ba ñu ba affaire député di ñëw foo tax foofu nag moo tax ma ne ñoom buggaan dañuy sonal seen bopp même bu ñu buggoon ñëw duñu leen bàyyi ñu ñëw parce que yéen ba muy neex ba muy metti da ngeen na daw te kii nee na ma cinq député la yomb waaw kii nee na kayis <laughs> na réglé non du question kanis quoi du question na mais cest à dafa am gis nga député du lu gaay député ñoo koo gis député la bëgg nekk koo gis Sénégal politicien boo gis ay Decroix pas yooyu député dafa neex déjà fi ngay liggéey dafa rafet assemblée dañ lay jox oto dañ lay jox xaw ma 1000 litres essence ba pare di la fay 1 million 300 ba pare nga am ay ay connaissance député yombul ku yaakaar ne da ngay xëy rek salaamaaleykum maaleykum salaam da ngay nekk député ku mel ne Serigne Mbour mën na xëy ne damay dem nekk maire parce que am na xaalisu boppam bu ko neexee mu ne damay président député Serigne Mbour parce que am na xaalisu boppam mais képp ku fi amul sa xaalis bopp bul sonal sa bopp kayis foofu li mu war a def mooy mu continuer laay bopp xam nga wane dooleem gars yi du ko cotiser xaalis pour mu wan waa Pastef que ne moom am na lu muy représenté parce que Pastef rek yow askan bi rek moo la mën a tabb pour nga nekk député diaspora mais député diaspora defe naa benn rek lay doon benn rek lay doon loolu day jafe pour ñu bàyyi fa ñoom seen seen waa Pastef di jël ay Ousmane Tounkara walla di jël ay Kayz donc gars gars il faut que nous nous réaliste tout waaw il faut que nous réaliste mais nous ñi ñëwaat ci élection yi pour wax leen gis naa leen ñuy jubilé di yuuxu di tëb di daal mais ñàkk fayda mooy di toog di bàyyi Macky Sall du dàq élection yi Macky Sall du dàq élection yi te kii bii ñuy xas Akhenaton mii ñuy xas nous moo njëkk wax ne démb la Antoine Diome waroon wax caution bi ñaata parce que dañ né defe naa cent jours 150 jours avant les élections hein war nañu wax ku nek caution bi ñaata lay doon waaw kay yéen ñi nek député Macky Sall foofu lay rëqee sen ndigg yeen ñi nek bëgg nek député diaspora Macky Sall foofu lay wa <laughs> waaw Karim Xrum xamul bopam Karim Xrum xamul bopam bu né dafa bëgg nek député fenn rek la mën nekkee député liste parallèle euh, ànd sàmm jikko yi te waa loolu ñoom loolu lañ bëgg a def ànd sàmm jikko yi loolu lañ bëgg def xalaat TV sax nee na mu ngi leen di jàppale ci loolu ànd sàmm jikko yi dañu bëgg bàyyi ba élection yu ñëw ñu créé seen liste bopp dàmbooj am na lu muy demee foofu lay bokk euh, Clédor bokk fa kii bokk fa euh, Ababacar Mbuub ak Makhtar Oustaz Makhtar Sarr ñun ba ñu de ñun on n'est fou man loolu maa ko njëkk wax amaa xalaat ci bi di ko wax wax naa ko Karim Xrum Xax bu mu génnee wax député ci laa ne kon ah kon ñii député Karim Xrum Xax moo leen feeñal te Karim day njëkkante pour bokk ci kaw parce que ànd sam jikko yi lu mu am am am ay deux députés lay am wala trois députés loolu lañu xam moo tax ñu bëgg créer seen yëfu bokk te loolu bu ñu ko defee ñun ñu ñuy xeex ñun yow askan bi parce que loolu mooy Macky Sall loolu la bëgg Macky Sall dafa bëgg opposition bi tas ànd ànd sant jikko yi génn seen liste kanam koo xaax génn liste kii génn liste kii génn liste mais loolu nag dafa ñuy gaañ ànd sàmm jikko yi yéen amuleen pour nekk ay député ko koo xaax amuloo pour nekk député yéen da ngeen war a ñëw gis ngeen léegi li taxoon ma leen doon xas ma bàyyi bàyyi Karim bàyyi Damboj li taxoon ma leen doon xas nee moo tax mun leen ñu ñëw ngeen rangé wu derrière Sonko ah lu tax mais kii nee na je suis d' accord pour Karim nekk député ñun ñëpp d' waaye ñoom bi ñu baree seen liste dañ ñuy gaañ ñun yeewu askan bi daf ñuy gaañ ñoom Karim ku mu xam ñoo ko def nee naa leen il ngeen di déglu monsieur Cheikh ñoo ko def waxoon naa leen ñëw leen ngeen bokk ci yow askan bi mais dañoo xeeboon wax ji yëpp loolu la activiste dañoo xeeboon yeewu askan wi BAJ dañoo xeeb. audible laa leen wax ñëw leen lan moo tax gisuma yaanaamaar mu ñëw ànd sonko gi mara saña moo leen ëpp fula wa ñoom dañoo dem ba ci biir xam ne gii day nekk député par force gi mara saña par force day nekk député parce que ragalul dafa ñëw mu ànd ak sonko mais ñoom ay tapet lañu parce que xam nañu képp ku ànd ak sonko Macky Sall day rëq sa ndigg comme nu mu rëqee ndigg eh, l'autre eh, eh, kilifa moo tax ñu daw ba pare dañoo dem ba ci biir ñu ne affaire góor jigéen ñoom war nañ si mën a jaar pour am député te wax nañ dëgg affaire député bi foofu lañ ko ndara jaar pour am ay député mais ñoom ñuy gaañ xam nga lu tax ñu ñuy gaañ liste parallèle lay doon parce que tey mënoo votal ànd sàmb jikko yi vote votel yow askan benn benn nit ku nekk benn yoon rek ngay voté ku nekk benn yoon ngay voté te am na ci ñoo xam ne bu ñu waree a voté yow askan bi danaa non non du ma votel yow askan bi man affaire góor jigéen moo tax may voté dem votel

mënul nekk député xanaa ci lenn mu dem ci ànd sàmm jikko te gis nga ànd sàmm jikko yi xeex bu metti lan moo mën na fa jóge sax tas parce que député moom bi nga defee numéro un am nga chance nekk député mais ànd sàmm jikko yi un ba trois mën nañ nekk député waaye quatre cinq six jëm kaw duñu duñu ñu bokk parce que ànd sàmm jikko yi gëm naa ne mën nañ am deux trois députés ak plus fort reste wala affaire yooyu te loolu sax wóorul non non, mën nañ ko am parce que Sonko 33000 voix rek la amoon ànd sàmm jikko yi parce que affaire bi prof lay doon proportionnel comprendre mais caution bi ñaata lay doon caution bi Macky Sall mën ko def 15 Macky Sall mën na ko def 15 millions Macky Sall mën na ko def 15 millions mais ça dit, dire fii la ñuy xamee kan mooy xeex ak Sénégal ak koo xam ne boppam moo ko tax parce que ànd sàmm jikko yi bu Sénégal la ñuy xeexal dañu war a ba ñu jële fi Macky Sall wala bokk ñu def coalition xanaa lenn xanaa lenn bu ñu defee seen député te ñoom sax xam naa loolu la ñuy def bu ñu defee ba am trois députés après ñu ñëw bokk ci benn coalition assemblée ànd ak yeewu askan bi comme ça ñun ñu yor majorité waaw loolu d' accord na loolu d' accord na Karim Xrum xam foofu la mën a nekk député mais foofu problème la parce que kan mooy nekk numéro un ci ñoom est ce que Ababacar Mbuub lay doon numéro deux bi kan lay doon est-ce que du parce que maa ngi gis sëñ Makhtar Sarr di wax way way ànd sàmm ji ko suis ko ñëkk a créé créé fii di guddi bi ku nekk mu ngi positionné ya, boppam maay gars yi man dofuma keroog ba ñuy def seen conférence de presse bi di tontu Macky Sall defe Macky Sall lañ doon tontu non avant ñuy tontu Macky Sall ñu njëkkee def seen conférence de presse ñu ne Makhtar Sarr moo jël parole di commencé def historique naan affaire And Samm Jikko moom moo ko njëkk a créé moo ko njëkk a wax lii laa lii laa laa laa ku nekk mi ngi positionné ku nekk mi ngi positionné gis nga nag bu ñu demee ba dajale xaalis ba ne ñoom dañuy bokk foofu la problème bi nekk Karim day ñëw ne man ci kanam laay nekk Ababacar Mbuub ne non non man ci kanam laay nekk Cheikh ci kanam laay nekk Clédor ñëw ne non non Mister Leye Leye mi ñëw ne non mën na fa jaare tas foofu mën na fa jaare tas billaay barka rasool laay dàmbooj nag mom mom wa Pastef ñoo wara war jël ne ko xolal kaay bokku ci ñun Pastef parce que yow asan bi mom duñ ko tànn Pastef Ousmane Sonko mo wara a jël benn place lolu seen njëriñ la de lolu seen njëriñ la parce que dàmboj ñu koy suivre dañu bari te bëggul utul ñun ñok man ma leen di propose man analyse laa man xamna patriote yi mérité na billaahi wallaahi taalaahi dàmbooj ku ko am ku ko am dina la indil dina la indil voix yu bëri te en plus moom bu nekk assemblée ñun député yu mel nii lañu soxla koo xam ne xam na dossier sax dàmbooj nañu wax dëgg moo ëpp xam-xam karim xurum xaq mais xam xurum xaq moo ma gënal député affaire yi nga xam ne dañ fay nekk ay maire yoo xam ne jànguñu dong ñenn ñoom lu ñëw rek ñu vote mais gis nga Baye Dieng man dàmbooj convaincre na ma nu melaan bii ñu waa benn ya nekk yaakaar bëgg foqati suñu résultat mais dàmbu lu ma leen yekk yëpp mënu ma leen ko sax nettali li ma wax bëggoon wax yëpp <coughs> li ma bëggoon wax yëpp dàmbooj wax na ko billaay barke rasulilaay dàmbooj il est efficace <coughs> man sentir naa ne liggéeyul ko boppam billaay parce que wax na ba pare tuddul benn yoon ne moom dafa bëgg nekk député dàmbooj xeexalul pour boppam Sénégal lay xeexal <coughs> mista leem leeng sama waaj <laughs> waaw kii bi ngeen di xas karam kii bi ngeen di xaar Akhenaton bi ngeen di xas moom dafa bari ay suuf Akhenaton dafa bëri xam-xam gars yi dañ koy woo di ko wax lu nekk moom moo fi njëkk a wax ne caution yi dañ ko waroon waroon nañu wax caution bi ñaata lay doon ministre de l'intérieur Antoine Diop waroon na wax caution bi démb la ko waroon wax parce que loi bi moo ko wax mais defu ko xam nga lu tax Macky Sall dafa bëgg a dàq élection yi man nag waa Pastef dañ naa jaaxal parce que El Malick moo njëkk a toog plateau Walfadjri mu ne Macky Sall est-ce que du dàq élection yi El Malick war a wax loolu wala ñoom loolu lañ bëgg dafa mel ne waa Pastef seen bopp dañoo bëgg Macky Sall ah kii nee na laisse tomber ça Dame Mbodj pour Pastef non Dame dafa war a ñëw Pastef laa la wax ñu def ko député mais loolu daf ñuy yokk nit booy ut da ngay ut ku la yokk dama ne almalik moo toog wal Walfadjri mu ne Macky Sall la xam naa ne duma yi ñu ko duma xam naa ne bu dàqul élection yi mais ba loolu war nañ ko dugal ci xelu Macky Sall lu tax ñuy ñàkk fayda Macky Sall di di dàq élection yi te nag gis naa waa Pastef génn benn communiqué di wax bëgguñu bëgguñu ko mais boo leen ko bëggul pourquoi ngeen di toog ci plateau télévision yi di wax ne Macky Sall day dàq élection yi Khadija Mahécor Numbelaan boobu ak Dambot moom it wax na ko est-ce que Macky Sall du dàq élection yi pourquoi ngeen dugal loolu ci bopp Macky Sall yéen ngeen jàpp nit ku duma ko ay duma yu métti léegi ngeen ndar ko bàyyi mu dàq élection yi ba décembre décembre ñëw mën na ko dàqaat ba 2023

nee na Antoine Diome dafa woo Macky Sall ba sonn mënu ko jot parce que Antoine Diome xam na lan mooy loi bi loi bi dafa ne démb la ñu waroon wax caution bi ñaata la bu dee 5 millions ñu xam ne 5 millions bu dee 10 millions ñu xam ne 10 millions kon bàyyi leen Akhenaton bi ngeen di xas man d'accord ma moom ci lépp su ma d'accord moom ci dara dama naan ko Akhenaton ma ci lépp mais li Ousmane Tounkara def man fii laa nekk New York laa nekk. suma doon faral damay faral activiste bu nek fi New York comme man mais man nekkuma fi di xala di xalamal kenn man Ousmane toukara faalewu wu ko jéemoo ko seeti suma nekhon neexoon ma dem xol fu mu nek may jéem nek mom duggu mom ci auto di jéem def ay laaj wala ma koy wo mais man wu ma len ñom ñoom ñëpp wu ma ci kenn parce que man liggéeyu ma pour ñom kenn mënu ma ci apporter dara ku fi def lu baax moko Cheikh Anne Cheikh Anne fi la nek nek patriote alpulaar 100 pour cent gars yi ñëw fii ñoom far ba Ngom bu ñu fi ñëwee ak Macky Sall bëgg ko jox xaalis mu bañ man ñooñu laa gëm ay Cheikh Anne Cheikh ann woo nañ ko pour jox ko xaalis mu bañ di ko laaj numéro Tunkara waaw ma defal ko témoignage Cheikh ann ci boppam contacté ma Facebook di ma remercier mais laaj leen ko ndax laaj naa ko numéro téléphone am c'est vrai que ngi si message laaj leen ko ndax laaj naa ko numéro téléphone war est ce que bëgg naa xam fan la nekk wala ma ne ko yóbbu ma ci tunkar su ma neexoon mën naa profité ci loolu bañ naa ko ba ay ñoom bu ñuy def seen seen manifestation yi sax di yóbbu Macky Sall man du ma fa sax dem du ma fa dem parce que sénégalais moo doy waar man du ma jéem a jaxasi jaxasoo activiste tey sof laa fi laay mooy dugg sama live des fois ma dugg live ko comprendre kon man su faral mën naa am tey sof laay faral mais faralu ma fi kenn mais du tere dëgg bu joxee dañ koy wax Ousmane Tounkara mooy numéro un laay boy Tounkara mooy un numéro deux mooy Kayz bu la neexee nag nga ne Akhenaton mooy trois wala quatre mais en terme d'audience en terme ëpp jot Kayz Fof lu tax Tounkara nekk numéro un parce que Tounkara dafa am jot Mister Shake deux ans yi lan moo taxoon man di ma ma ma ma nekk fi dama amoon jot mais man jot bi ma am sax tunkara amu tunkara jot bi mu am man mi amu ko ndax man bu ma commencé liggéey damay arrêté laay tunkara moo leen ëpp jot parce que moom liggéeyu boppam dafa ne liggéeyu boppam la yor moo leen ëpp jot moo leen ëpp fit tunkara kan moo fi ëpp fit xanaa kay sof tunkara moo ëpp fit kay sof parce que laay euh, le mars ba muy tàkk dëkk bi ba muy tàkk tunkara dafa tijji laay bam booy di wax jël leen essence def leen lii <laughs> def leen man damaa tiitoon sax jur boobu barki Rasulaay damaa tiitoon ci Sonkaram loolu tax ñu jàpp ko moom dañ ko jàpp tëj ko est-ce que kay soog dañ ko jàpp ko Tounkara mooy numéro un Pape Alé Niang ñëw def ak moom interview Ousmane Sonko tudd ko est-ce que mos ngeen dégg Ousmane Sonko tudd kay soog wala mu tudd Mame Seck wala mu tudd Mister Cheikh nañu gis nga nit bu liggéey ba am dara doo ko ko iñaane Ousmane Tounkara mooy numéro un non seulement dafa am audience mais dafa mën live te gars yi dañ ko ragal Macky Sall dafa ragal Ousmane Sonko Ousmane Tounkara ni mu ragalee kay so noonu la ragalee Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara gars dañ ko ragal parce que moom faalewu moom affaire bi jaamu yàlla la ko def waaw affaire affaire bi jaamu yàlla la ko def waaye nag boo nekkee numéro un dafa am ak ay dafa ànd ak responsabilité il faut que nga nangu jëlale yow lay jàppee di di xas axanetaan jël sa page di ko xeexee beneen beneen beneen live kooku Ousmane Tounkara juum na ba mu nekk fii di wax di ñu wax ay affaire Blindé yónnee leen xaalis bi ma def collecte bi dama ne ko Tounkara loolu du sa cër dama ne ko Tounkara loolu du sa cër affaire xaalis bu ci dugg boo ci duggee da ngay indi sa bopp problème parce que Sénégal dafa doy waar nit dina jóge fële ne yónnee naa Tounkara 5 mu dugal ko ci boosam bu fi wax affaire Blindé et puis président Sonko sax soxlawul Blindé dama ko wax 3 jours mam ñom mam sen diko xass ne ñun ñom mam sen ñoo ñëk wax affaire voiture blindée mom ak dabax effectivement man ASID TV la ko ñëk dégg après Ousmane Tounkara Ousmane Sonko génn mu ne soxlo ma blindé kan mo amone raison aw ma raison ci ñom kon nak Ousmane Tounkara warul jël page page di xex akana to diko attaquer attaque yu métti ay poste yu ne façon poste yu ne def na lu mat 4 poste naan ko l'homme sans visage kenn musu la gis di wax yoy, ba pare djël di def promotion Mansour Sy Djamil lan la ko Mansour Sy defal lan la ko Mansour Sy Djamil defal ba muy wane ay photo nan mi ngi Thiès mi ngi Diourbel ak mi ngi euh, euh, euh, Pikine mais Mansour Djamil mo def lu ko Akhenaton xase parce que ministre xat lu tax nga koy defal promotion Mansour Sy Djamil yow nga bokk ci yow askan bu xot ñëwee dina ya? lay siyaar mais bàyyi ko mu siyaare mais bu ko defal promotion waaw ñoom sonko nañu jël seen responsabilité non ñoom ñaar yàgg nañu am ay problème nag donc xëy na nag xëy na tunka <laughs> day fayu parce que Akhenaton mus na ñoom ñaar mus nañ fi jote xaw ma lan ci la woon ñoom ñaar dañoo yàgg am ay problème waaw mais nag warul attaqué ya. Akhenaton ci lii ci lii moom waru ko ci attaqué parce que sëñ Mansour dem loo toog di di xalamal xot xot ñaata la ko jox xot du fecc du fecc ci yàlla naa de xot dégg naa cent millions la jox ay sëriñ ay ay ay juma mais loolu dafa rafetul rafetul est-ce que da nga ma gis mu Moustapha Sy mu mu toog ñu koy ñu koy jox di toog ak ñoom xat nit da ngay am principe ñoom Sonko ñu jël seen responsabilité waaw nañ jël seen responsabilité fii képp ku fi génn def campagne defuloo defuloo yeewu askan bi campagne da ngay defaraale sa bopp campagne nañ waxante dëgg fii Sonko moo yor nit yi Sonko moo fi yor nit sëñ Moustapha Sy Khalifa Sall Aïda Mbodj nañ waxante dëgg Mansour Sy jami, bés du ñàkk c'est vrai am ay nitam ku ko ci weddi génnal yeewu askan bi nga xool ku génn yeewu askan bi sa affaire la gis nga ni nekk ci liste parallèle yi di dof dof la ay ay Thierno Alassane Sall pour moom léegi ngand la

dégg naa xam ne mi ngi attaqué Aba Mbaye xaw ma naa ne Aba Mbaye Mansour Faye kaa jënd xamuñu lu mu demee mais Saint-Louis man jaaxaloon la ma ci biir campagne bi waxoon naa ko pourquoi président Sonko demul président Sonko demul Saint-Louis Sonko bu demoon Saint-Louis man gëm naa ne Aba mën na gañe mais nag ñoom Sonko ñoom ay stratège lañu ay stratège lañu. ñoom ñoo xool ba ne garaaw nañu sacrifier seen ñoom ñoo xool parce dañ ne mën nañ gañ a Dakar mën nañ gañ a Guédiawaye mën nañ gañ a Ziguinchor xëy na ñoom ñoo jël seen décision mais garaawul l' essentiel lii daf leen di jàngal ñoom Sonko am na lu ñu gis ne législative bi législative bi bu ñu ànd ak Braya bu Braya sax loolu ñëpp jarul ñoo àndal gis nga législative bi Saint-Louis du ñu neexal kenn du ñu neexal kenn ku bëgg ñëw ñëwal ku bëggul ñëw sa affaire là. dañu ñëw ci législative bi c'est très important parce que fi mu nekk nii damay ragal gars les ay Barthélémy Diaz ay Khalifa Sall ay Sonko dama ragal ils vont dormir sur leur laurier Manam, gagné nañu gagné nañu gagné nañu léegi ñu ngi nii ndara sacrifier législative man lii moo ma soof ci ñoom lii moo ci ñom ñëpp nénañ nañ teg tekkaaral élection yi kañ la woon du woon mardi du woon lundi ki nee je ne suis pas Tounkara <laughs> Béya Diop élection yi du woon lundi tey la lan té du lundi 8 jours ku ko noppalu ko doyna nguur boko bëggé da ngay def ni président Sonko campagne xaw 3000 km la def xaw ñaati km la def waaye une semaine doy na noppalu anañu génn ñu defuñu conférence de presse remercier nit ñi man ñii dañ maa jaaxal yow askan dafa mel dafa tas dafa mel dafa tas man waxuma délégué yi ak maire mais au moins leader yi waroon nañ def conférence de presse Ousmane ko dafa war a conférence de presse moom Khalifa Sall Déthié Fall Ahmed Aïdara euh, Malick Gakou

ñoom Sonko waruñu woon seetaan Macky sàlla di sàcc Pikine ba jaara faam di dem di seet Sonko pour mu jàppale ko c'est vrai nag ndimbal la ci fekk loxo borom waa PDS da ngeen ñàkk fayda te am na ñoo xam ne sax dañ ne yéen yéen a ko tey jël Pikine jox ko Macky Sall loolu la Akhenaton wax Akhenaton dafa ne bëgg naa leen jàppale de waaye li ma dégg il faut moo leeral ko waaw waa PDS dafa mel ne ñoom ñoo saraxe Pikine parce que Cheikh Dieng Cheikh Dieng jaajëf euh, Brime boo ko déglu mu toog autour du micro ak Pape Alé Niang da ngay bëgg xam boo leen amee jot après live bi boo leen amee jot après live dem leen seetaan Cheikh Dieng autour du micro ak Pape Alé Niang 30 minutes rek la xaw 40 minutes mu wax la Pikine ni ko gars yi sàccee da ngay bëgg xaru sàcc bu doy boo xam ne ñu leen di bindal ay zéro président euh, tribunal bi di annulé ay yëf mais façon sàcc boo xam ne yow boo ko déggee da nga naan waa Pikine yéen yéen yéen doo leen tous yéen yéen timboo ngeen mérité Pikine Pikine timboo ngeen mérité parce que déjà yow askan bi ba ñu dindee liste bi da ngeen toog seetaan ñu yow askan bi dañu dindee liste bi da ngeen seet da ngeen ñu seetal deuxièmement Cheikh Dieng parce que waaye yow askan bi ñoom ñoo ne dam leen votal Cheikh Dieng dañuy wax transfert de vote ñoom weddi wuñu ko de ñoom xam nañ ne bu doon ñoom rek du ñu gagné tous PDS ay zéro la doon am partout au Sénégal ay douze PDS dafa tas mais Pikine li tax ñu am li ñu am yow askan bi ñoo def ñoom ñoo jëm dem dem votal leen ñoom Mame jaar Fam reconnaître na ko Cheikh Dieng il a eu la grandeur de le waaye da ngay na ñak fay da nan da ngay dem ay tribunal yeen mak Sall ngeen di liggéeyee bu gat lay baña a wa PDS mak Sall ngeen di liggéeyal <coughs> fay da gagné Pikine 7 milliards budget nan da ngay dem ay tribunal mak Sall ma ngeen ko gagné tribunal ñu yow deg nan tribunal takal bo na ñom ñoo lak document yi boo demee ñoom ñoo lak document yi ñak fay la nga yaakaar ne Timbo di ngeen ko gagner di ngeen ko gagner tribunal yeen do len genn ngeen tal Pikine waxuma la tal mais ngeen ngeen manifester sax mais Birame soulay dafa genn mu menacer Macky Sall Babacar Diop cheikh dafa menacer Macky Sall bo satché suñu élection palé lañ lay fekk yeen jaara faam Cheikh dié nek fi di di leyem leyemi di lemm lemm noy yo waron tuddu Cheikh dié de sama turandoo nga de yo waron nek yo Cheikh dié dafa toy orang tu di Syekh de dek. Dan dengan saya ko Pape Alé Niang le docteur Syekh Dieng lah. ak noy. Mai wax mu naan day dem tribunal gat doo leen ko gani. Yen yen yen timbo ngeen mérite Ko am problème rek dem sa seeti Sonko lolou bëgg sa ko genn di wax ay mortal combat Assane Diouf di wo ay Cheikh ay ñom Guy Marius Sagna xale doon Assane Diouf bo jógee di jay guerrier xanaa yow bëggoo nekk yow nekkoo numéro 3 ah <laughs> Bien Dieng kii waruloon sant Dieng de suñu mbokk bi Cheikh Dieng bi ak tooy ak tooy mu naan day dem tribunal gat doon ko gañe yéen timboo ngeen mbir mais boo dégloo façon sàcc yi waa Pikine mbaaw boo déggee façon sàcc yi Pape Alé sax dafa waaru après barki Rasoul laay mais loolu suñu defet la yow askan bi suñu defet la Macky Sall tey mu ngi nii di wër fu ne mu dugg fa maa gagné maa gagné 80 pour cent mais Pikine waruñu ko seetaan mu koy foxati suñu loxo ba pare génn di yónni ay maître la ñu ñuy saaga di wax maa gagné fii maa gagné fële maa def lii maa def laa ak ñoo tooy yéen yéenay gloria wax ji yëpp loolu la vous travaillez pour Macky sàll ñàkk fay na gagné Pikine Macky Sall timboo di ko nangu seen loxo ah di taal ay tribunal may wax ñu naan juge bi def na lii juge bi def na la mais gars yi dama leen ko ñaan après bu laay bi jeexee dama leen ngeen seetaan Cheikh Dieng autour du micro ak Pape Alé Niang da ngay bugg yuuxu sàcc bu doy waar boo xam ne waruloon sant Dieng waay waruloon sant Dieng bay tudd Cheikh nag nekk sama turandoo ah non ñii ñii dañu yabaate mais politique moo salte parce que ñoom Sonko fi mu nekk dañuy bëgg wan waa PDS dootoo leen gat motax ñu leen di seetaan gis nga gaay politique c'est machiavélique ñom Sonko ñom ñoo bëgg détruire PDS parce que PDS dañ doon jaay reuy lamé ka leen bok ngeen neul do leen bok PDS mak Sall ñu diggé defu ñu campagne ñu meeting li leen dal c'est bien fait pour eux parce que dañu def diir ak mak Sall Macky Sall nax leen 2024 Karim Wade laay def lii wala Karim Wade laay def la dañ leen a nax dañ leen a nax ñu ñu bëgg disons 2019 ay protocole de ab Abdoulaye Wade jël avion am dem Guinée ah xaw ma lan la waxante ah, ah, ah, Alpha Condé Alpha Condé ngi nii ñu daaneel ko Abdoulaye Wade naan Alpha Condé ñëwal dakaar boo ñëwee Dakar ma fat la lu tax mu lay fat parce que moom moo la defal protocole de Guinée PDS li leen dal maa leen koy yéene Karim Karim Wade nekk man yaakaaroon naa ne ku muus la waaye muusul muusul moom bu muusoon mën na nekk premier ministre wala mu nekk président de l' assemblée 2024 muusul yow doo ñëw nga ànd ak Sonko ak Khalifa Sall léegi ngeen dem ci élection yoo xam ne vous vous êtes autodétruit li ñuy wax li américain di wax self distraction defuñu campagne amuñu xaalis ñu sax xex Macky Sall motax lo ci gis dañ leena a wàcc du ñu gat PDS du dara bayi leen Macky Sall da leena détruire détruire PS détruire AFP détruire benn Bokk Yaakaar parce que Macky nak leen na ko jaaxal gaay Macky dafa yaakaaroon ne moy gagné <laughs> te dina leen wax benn affaire gis nga législative yi bo leen yaakaar ni lay yombé boo leen yaakaaree ne nii lay yombee da ngeen nax seen bopp xanaa déggu leen li Cheikh Ba wax Messi Cheikh Ba Messi <laughs> Medina waxuma leen woon Bamba day gagné Medina waxuma leen ko Macky Sall xam nga kan la xam kuy xeex ak moom ci terrain bi gis nga Bamba li mu def Medina bu ko Cheikh Dieng defoon Pikine tey mooy maire Pikine Macky Sall li dal Burkina Faso le 23 da ngeen waroon profiter ngeen profiter parce que Macky Sall talatuloon élection yi Alassane Ouattara moo doon woote le 24 di woo chef d'État yi Burkina non lii dañu war a euh, woo na Macron sax dégg naa pour Macron jàpp ko Macron ko sama nekku ci parce que Kaboré moo seetaan xale yi. song sama armée mooy armée bi ba muy war a jógee xaw ma Niger pour dem Mali Burkina bay arrêté armée française Macron loolu la mare Kabore dégg naa benn Ivoirien activiste la seetaan mu koy wax mais dégg naa Alpha euh, Saay Ouattara dafa nekkoon di woote parce que Burkina Faso bu daanoo Côte d'Ivoire moo ci topp mais yéen li xew Sénégal li xew xamu leen ko sax yàlla ni mu ñu bëggee xamu leen ko sax barki Rasulullah gis nga nit nag yàlla di la tàccu di la tàccu rek nga ne doo fecc première vague première vague violente sanglante le 8 mars mënoon ngeen fi jëlee Macky Sall ngeen ne noonu yàlla joxaat leen beneen chance deuxième vague comme ni ko gars yi waxee deuxième vague par les urnes parce que Macky Sall dafa yaakaaroon ne mooy gagné Cheikh Ba déggu leen lu wax Messi nee li tax ñu gañe ko Medina ñom xamone nañ ne euh say 8000 voix amna ko amna 8000 à 9000 nit yo xamné Medina Bamba Fall dafa am ay nit yo xamné ne ñoo koy bote huit ba 9000 Cheikh Ba nee benen yoon dinañu fexe ba am 10000 mille ku am dégg-dégg ku am dégg-dégg di nga dégg li Messi wax li ñu def ci transfert de doyul ñoom dañu yaakaaroon ne li ñu def ci transfert de lecteur doy na mais gis nga législative ñu fexe ba jël soit ñu fexe ba Bamba Fall bokk ci ñoom te lool sax duñ ko def parce que Bamba Fall gis na li dal sa Seck mais gis nga xam nga lan la ñuy def Médina ñu fexe ba ñu def ay transfert directeur lecteur indi fa yeneen i nit parce que nee na ñoom xamoon nañ ne saa yu 8000 la am. ñom benen yoon dinañ ba am 10 000 loolu Nous Cheikh Ba wax gis nga ñom Sonko Nous Sonko nañu génn ñu commencé liggéey nañu génn ñu commencé liggéey une semaine ku ko noppalu ko doy na heure bi waroon na fekk ñu ñoom ñëpp ñu daje def évaluation une semaine doy na ci sëkk. mën nañ leen sax mën nañ leen sax may fii ba vendredi mais semaine bii moom semaine bii waruñu ci génn te Sonko génn ñun soxlawuñu ay célébrer victoire Sonko def na benn poste di wax ne dina def benn tournée xam nga pour célébrer victoire ban victoire ban victoire la ñuy célébrer gañe naa Dakar gañe naa euh, ay mairie mairie yoo xam ne Macky Sall moom mooy xool bu ko neexee mu téye xaalis. loolu lan lañ ciy gërëmaate lan lañ ciy gërëmaate Sonko dañu war a ñoom ñoo war a def seen réunion d'évaluation bu ñu paree seen réunion d'évaluation ñu woo journaliste def conférence de presse ñu jubli ci législative yi wax ko d'une manière très catégorique bu dee ñoom daf leen arrangé ñu pousse élection yi nañ ko pousse benn yoon benn yoon lay doon décembre soit novembre wala décembre te du ko paase comme ça bu ñu profitoo ci xam fan la ñuy arrangé ci ciy profitoo bind suñu xale parce que tamit élection yi jàng nañ na transfert d'électeur am na ci jàng nañ ne ñu bëri dañu waroon vote HLM bureau temps nga ñëw ba ci jour bi ñu ne la war a voté HLM yaa ngi war a xaw ma fan

moo tax Khadija Mayakor génn di wax est-ce que du ko puus El malik génn ne est-ce que du ko puus ñoom xam nañu boo demee ñoom Sonko puus bi sax bo démé ñom mo leen arrangé li tax mak Sall 31 décembre mu ne non non juin la koy def parce que xam nañu bu ko pousser arrangé wu ko yéexal jël la rek parce que bu ko poussé di nga arrangé Sonko ci benn côté parce que dina dem mairie ba mu xol li fa am xam nga parce que fu Sonko amu jot foog mu dem Casamance. organiser mairie ba xool ñan la fa war a teg amagul jot pour defaat beneen campagne ci six mois yi Macky Sall nag bu muusoon day profité def ko léegi lu muy sàcc mu sàcc mais fii bu ko bu ko deful fii ba décembre gars yi dinañu xool li ñu war a rectifier yëpp ñu rectifier ko mais man boo ma laajoon dama naan nañ ko def juin nañ ko def juin parce que li américain di wax momentum la ñu am mooy élan ñu nañu am élan élan boobu moom la war continuer ñu ñu wax ko ne ñoom Karim Xurum Xaq sax ñoom duñ ko seetaan parce que Karim dafa bëgg nekk député Karim Xurum Xaq moom juin la bëgg nekk député moom <laughs> moom nee na du seetaan Macky Sall <laughs> dàq élection yi gars yi war a génn ñu imposer ko mu def ko juin parce que Macky Yalla moo ñu bëgg Sénégal yalla moo ñu bëgg le 23 juin le 23 juin la Ablaye Wade amoon problème le 23 janvier Macky Sall am problème. dafa melni aussi woto góor jigéen bu mag bobu ñu defoon dafa melni le 23 lañ ko defoon tamit 23 mai dafa mel ne lañ ko def suma ma suma <coughs> su yalla juumul ñu bëgg jour bi ñuy def suñu élection. Burkina Faso am coup d'état gars yi xam ngeen loolu lan lay def ci psychologie Macky <laughs> dafa jommi fi mu nekk xam naa ni dina dina ne sëriñu Sonko yi garaaw nañ parce que yow CEDEAO trois mille coup d'état rek la ñu ragal CEDEAO coup d'état la ñu ragal yow Birame léegi mu sa leneen sama waay la foo nekkoon Mr Layem Layem xanaa seetaanoo ko numbelaan il mérite waa Pastef def ko député Mr Layem Layem il est fort rek la juumee mooy bu wax Sonko waruloon nekk euh, maire Ziguinchor man foofu laa ko loon man Karim Xrum Xax dafa bëgg nekk député te nee na Macky <laughs> du dàq élection yi ñun boobu mën nañ ko jox Karim <laughs> ah non léegi sama waay la Brumel ouh Lem Lem il est fort il est fort il a fait un joli boulot Nous, me l'a bi passé Dambodj il a fait un un excellent travail non Dambodj Dambodj dafa lakkal Macky Sall kooku waa Pastef ñoo ko war a jël def ko numéro mu mu fexe ba numéro 30 yi wala 40 nga xam ne day député par force mérité je ne connais te Dambodj day indi dafa am ay nit Dambodj nit ñi dañ koy

ne ko dafa am coup d'état Alassane Ouattara woo ministre défense nekk na ministre défense bu ngi nelaw mu yuub ko saago ko saago yu métti comprendre def réunion préparé ay bëggoon sax yóbbu ay soldat gaa yi ne ko c'est gaa tard gars yi jël nañ pouvoir jàpp nañ jàpp nañ Kabore am na ñu woon sax Kabore dañ ko jëm parce que wane nañ benn oto boo xam ne dafa am direct Kabore boo demee gars yi jam nañ ko loolu dañ ko dóor balde mais Kabore bind na ko lekk Alassane Ouattara ci boppam lâché na Kaboré parce que nee na wax naa Kaboré Kaboré na ko non non man daal mieux ma bàyyi quoi Alassane Ouattara moo woo waa CEDEAO bu wax leen loolu mu ne wax naa Kaboré Kaboré ne ko daal nee day bàyyi Alassane Ouattara il a lâché Kaboré dafa tiit Ouattara dafa tiit dafa ragal ne parce que Guinée Guinée Bissau Guinée euh, euh, euh, Burkina Faso bu amee problème dafa am frontière Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire lañ jëm. gars yi Côte d'Ivoire lañ jëm est-ce que yaa ngi tax mu tiit woo na Macky sàll la 24 Macky Sall talatul woon résultat yi la moo tax Aliou Sall bañ ko gagné Guédiawaye mu nangu Thiès bi ñu fépp ñu nangu Macky Sall talatul woon sax élection yi billaahi Macky Sall talatul élection yi waa ji monsieur Yappé la tudd xaw ma benn activiste defe naa monsieur Yappé la tudd xaw ma mu woo nee na Macron la saawaay woo Ouattara pour Macron jàppale ko Macron ne ko sama yoon parce que Macron déjà anti sentiment anti français bi nekk dans la sous-région du Macron mooy ñëw naan dafay yónni ay troupes tey rek déggu leen ñu ne Mali dàq nañu ambassade de France Mali nee nañu loolu defe naa ci kii laa ko dégg laa ko liire Kewoulo Babacar Touré Kewoulo bind na nee na Mali wax na ambassade France nañu génn trois jours lañ leen may 72 heures génn leen suñu réew dak nañ leen France gars yi doole bi ñu am yeen xamu leen ko sax activiste yi boo leen di deglu il faut ngeen di dem di deglu activiste africain mouvement panafricain bi kay sof di xeex il faut commencer am doole waa Burkina Faso waxatul bu seen bopp rek de ñoom Afrique lañuy waxal Afrique lañuy waxal mo nek Mali mo nek gis nga marche bi Maître El Hadji di di ñu xass naan lutax ngeen di wax Mali léegi lii

xam nga Macky Sall dafa wootal sanction Mali dañ lay daaneel Kabore looloo tax ñu gën ko daaneel nee na Kabore tax ñu gën ko daaneel mooy non seulement militaire yi ñu fi rayoon temps yi la ñuy rayoon euh, Côte de fële Burkina Faso parce que corruption bi moo bëri mais na amee militaire mënoo ko sax jox lekk mais c'est extraordinaire ay gendarme nekk ci seen caserne amuñu sax lu lekk dañuy obligé dem di di rëbb rëbb chasser. gars yi fekk leen fa ah, ah, ah, terroriste yi fekk leen fa wër leen amuñu amuñu doole pour xeex ku xiif nan lay xeexe noonu lañ fa rey cinquante et quelque li li xew ci armée malienne ak armée burkina bi burkina bi surtout Mali man maa ko seetaan benn reportage man damaa jommi ci yàlla man dama ne woon Sénégal mooy pays bu gën a corrompu ci àdduna <laughs> mais saa du Sénégal kese de. <laughs> ndekete ñun waa Mali ñoo leen tane ndax ñun lu bon bon suñu soldats xanaa lu bon bon ñu ngi leen di fay ay si soixante cent mille te ñu ngi ciy jot mais Mali seen salaire pour ñu jot ko dégg naa généraux yi dañuy dagg rek di dagg di général bi lay dagg colonel bi dagg seen salaire balaa ñu koy jot lu ne la ñu gis amuñu sax ay armes looloo am Mali ku kaas ñu yóbbu la ci ci ci front ba fu terroriste yi nekk foofu la ñuy pour ñu rey la sàcc bi militaire yi di sàcc. généraux yi sàcc bi ñuy sàcc mais c'est extraordinaire France dafa cent cent militaires amoon euh, Mali bañ leen di dugal tàgguñu leen Mali dàq na leen génn nañ France bu dee loolu dëgg la dàq nañ ko Mali Macky Sall problème boobu la Afrique moo changé yéen nag yéen fi nekk di seetaan ay Coupe d'Afrique Sénégal bu bu mënoon toog billaahi moo ñuy arrangé xanaa yéen seetaan leen démb Sénéweb Sénégo billaahi ñii ñooy jaam billaahi yi jaam Coupe d'Afrique rek article un ba quinze Coupe d'Afrique rek la ñu doon wan nan Macky Sall déclenché ne xaw ma lan indi leen coupe bi xaw ma mais ñii ku ñu yàpp yéen yéen amu leen jom fu mu nekk nii Matar Ba mi ngi wax ay coupe d'Afrique naan non parce que instant yi yaakaar nañu ñooy gagné parce que Sénégal parcours bu yombee nii mosu ko am Sénégal parcours bu yombee nii mosu am ay Guinée équatoriale ay Burkina Faso la ñuy tase bu ñu jël coupe bi fan lañ fan lañ koy jël ñoom yaakaar nañ ne Sénégal mooy gagné coupe bi ba ñu jël ko politique ko dàq législative bi war a ñu sàcc législative parce que dañu yaakaar ne. sénégalais yi dañoo gëm ay football te xamuñu ne Sénégal ñun faale wuñu coupe d'Afrique mais yàlla ñu toog laa wax ñu toog moo ñu arrangé billahi wallahi taalaay man de bu ma sañoon Burkina day jaar suñu kaw Burkina bu jaarul suñu kaw <laughs> xam naa ne ñu bari nañ na saaga Burkina bu jaarul suñu kaw Cameroun bii ma gis ak équipe la yor de équipe moom man dama ne woon du ma nit yow askan bi commencé ma gagné moo tax ma commencé seetaan mais Cameroun Cameroun équipe la yor football bi sax nañu football gëmul ma ne gëm naa ne sax xam naa ne Sénégal Cameroun ñooy final mais billahi wallahi taala ni mu ñu bëggee bugguma Macky Sall am benn victoire gars yi gënu leen ma bëgg football gënu leen ma bëgg football mais billahi wallahi taala Sénégal toog moo ñu arrangé Macky Sall waruñu ko may dara dara dara ñun wuñu diversion man monsieur Cheikh bu démé ba sax ba ba xam naa nag looloo tax ñu dara gañ man de li ma contre Sénégal dina tax Sénégal jël coupe parce que man saa yu ma faralee Sénégal ñu gañe Sénégal ren ma contre Sénégal Sénégal commencé gañ mooy comme ñuy wax Queen Biz rek bu leen way bu leen way équipe bi man de xam naa Sénégal dina gañe parce que man bugguma Sénégal gañe man fi mu nekk man j'ai rien à perdre bu Sénégal gagné je suis content buñ ko gañee je suis parce que Macky Sall bugguma mu am victoire Matar Ba bugguma mu am victoire kenn du dégg Sénégal bu gañee Coupe d'Afrique kenn du dégg mais nag Macky sàll ñun ñu ngi koy gërëm ci benn côté man dama ne woon bu bu ñu gagné Dakar mu nangu ñu gagné Ziguinchor mu nangu dinaa ko remercier dafa mere Antoine Diop loolu la kay sof wax. <laughs> mais lolo tax ñu wara féliciter Antoine Diop <laughs> non pas kay sof Akhenaton Akhenaton nee na sa <laughs> way day wo Macky Macky fa jëlu ko mi ngi wo Macky Sall Macky Sall du ko jël parce que Macky dafa yaakaaroon ne Antoine Diop dina ko gañal élection yi waxuma leen ne Antoine Diop dañ koy dàq waxuma leen fi wo waxuma leen ne Macky Sall Antoine Diop buñ ko gagné Macky Sall da koy dak Antoine Diome am na nu muy demee fii ak le 8 février ci la ñu wax ne le gouvernement lay lay defar ko kii am na nu muy demee Antoine Diome doo leen ko gisaat de billaay barke Rasuul am na nu muy demee doo ko gisaat parce que Macky Sall defet bii daf kaa choqué li tax mënatul yëngatu xam nga la moo tax yëngatu mais nag Brimel dootuma ko tuddee Antoine ñàkk Diop parce que moom moo organisé élection yi ñu ko gagné dañ koy félicité dañ koy félicité Antoine Diop dañ koy félicité. parce que bu sàccoon élection bi dëkk bi day tàkk Macky Sall bu nangul woon dëkk bi day tàkk alisal Sall lu ma ko bañ bañ bañ bañ dama ne woon bu nangoo def na dinaa ko félicité parce que kat am ci sous région bi ñoom xam nañ ko de gars yi lii du ay caaxaan de yàlla yàlla ay mbiram kenn xamu le 23 bi ñuy def élection coup d'état am Burkina Faso man loolu daf maa jaaxal. est-ce qu'on waa Burkina Faso tey ñu ko def coup le 23 pour gën sonal pour gën a CDAO parce que xamna na ne bu ñu woowee Macky Macky danaan oh Ouattara man sama nek ci un instant yi taluma ko man ci ay élection laa nekk ci ay élection laa damay bañ dëkk bi tak ils ont été très stratégiques ni def coup d'état bi Burkina ils étaient très stratégiques def ko le 23 Macky Sall il n'a pas osé lever le petit doigt parce que bu duloon loolu Macky moom mooy woo jël téléphone bi woo Ouattara parce que Macky buggul coup d'état gisoo Mali bi nu mu ci sonne gisoo bële tamit nu mu ci sonne bu Guinée bi mais yàlla mu ñu bëgg yàlla moo ñu bëgg yàlla moo ñu waa APR Sébigné Diatta non yàlla du nit yàlla du nit gis nga waa APR dañoo jom Abdou Mbow kan moo ko gënoon a rëy laa mi Abdou Mbow dem. soir d'info Si Binta Diallo seetaan ngeen boobu tamit gars yi man maa leen di wax émission yi neex yi boo leen paree dem leen ngeen seetaan soir d'info Binta Diallo Abdou 30 minutes rek la mais Binta Diallo daf kaa posé question yi nan ko troisième mandat bi moo tax ñu gañe leen affaire góor jigéen bi moo ñu dañ mais Abdou il était petit ñom dañoo dañoo waru defet bi da leena jaaxal gis nga defet bi choc la choc gaay dina dinaa leen wax ben affaire dañoo xat mak Sall dafa mën politique waaye Khalifa Sall vrai politicien la man waye yow askan bi dañoo efficace yoo xam ne Ousmane Sonko dafa bari xam xam-xam mais Khalifa Sall moo fi njëkk wax je me fiche du fichier. khalifa moko ko wax borom xam-xam la de lolou Sonko waxu ko de khalifa Sall mo ne je me fiche du fichier man damay deg nit ñuy wax fichier fichier xam man waxon na la man waxon na la dem len ngeen set beje après nga setat man ma fa nek di commenter Binta jall ne yi ki la pula la bu dul def ne doo ko daal bandu lolou sax def na question yi mu war poser ko saa yi doon xuloog après Abdou Mbow doon xulok mom te Binta da koy posé question mu bañ a raw mu bañ a Binta fàttali ko ne ko troisième bi na troisième mandat bi nag <laughs> ne ko affaire góor jigéen ñi nag yow askan bi mais da ko posé question mais ak Abdou Mbow il était acculé barki Binta Diallo mayu ko daara daara daara dama ko partagé sax sama Facebook tellement j'étais content gars yi mayatuñ leen dara mais ñoom dañoo jommi yow askan bi dañoo baax barki rasulaay dañoo baax yow victoire bu mel nii nan nga koy amee ba pare dem làqatu laa <laughs> ilaaha illallaah mais yow gis nga waa appel ils sont sous le choc douche froide dafa mel na ndox mu sedd guy la ñu jékki-jékki rek sotti la ñoom lii xalaatuñu man mii lii ku ma ko waxoon ku ma ne woon Barthélemy Dias dina gagné Dakar ni mu ko gagné man mii la laaj doon wax Barthélemy mu sonal sa bopp doo gañe tànk xeexuloo parce que man gisuma leen ñu xeex ma ne ñii am na lu ñu xam lu ma xamul parce que man it moo dox ne ñii waaye yow askan bii duñu ay cuune de am xam lu que ñëpp ñi ngi naan ma Mister waxal ci fichier bi Mister Shake waxal ci fichier bi ci fichier bi ma ne du ma ci wax dama ne du ma ci wax parce que waaye yow askan bi am na lu ñu xam lu ñu xam Vous askan dit ci que askan bu wax ajusté askan bu bi on va gagner on va sécuriser le vote le jour du vote vous avez ko que wax avez dit que plan mais ñoom dañoo noppi noppi vous ba mu trois jours ci élection yi avez réunion Dakar bi avez dit que vous il faut rendre à César ce qui est à César du Sonko du Barthélemy du kenn Khalifa Sall moo wax wax du doy waar boo xam ne Barthélemy xamoon na nag Barthélemy xamoon Sonko xamoon mais Khalifa Sall moo njëkk wax je me fiche du fichier barke Rasool laay parce que jour vote on va sécuriser le vote loolu lañ leen gagné Sonko génn nous wax ko. Barthélemy Diaz maa ko seetaan mu toog ak Pape Alé Niang autour du micro gars man nag damay def sama devoir man damay seetaan lépp lu ma war a seetaan dama koy seetaan ko seetaan autour bu mu ñuy def mu ne Pape Alé xaaral ba lëndi dinaa duuma Macky la du mais yow gars yi ñii dafa mel ne non man waaye yow askan bi dama leen fa parti rasolay mais Barthélemy Diaz nan la xamee woon ne ne il va dafay dafay écraser Macky man moo ma jaaxal même Pape Ali naan ko ah saa nga sa bopp de mu ne ko mu ne Pape Ali xaaral ba ba ba kii ba lëndi ko duma duma yoo xam ne Barthélemy même pas dégg naa côté 6 heures 7 heures la commencé jubilé mais Aliou na nag Aliou Sall <laughs> gisuma ko de waaye jommi na. moom mi génn di xas Sonko naan ko affaire Adji Sarr bi yaa ko def dem 2STV indi mbootaayam gars yi wër ko muy wax ma ne ko Aliou Sall erreur nga billahi nag la dalaa cokkaas sàcc bii seen sàcc bi boo leen ko defee maire su ma ñëwee 2024 dañ koy tëj loolu rek la Sonko wax Sonko da kaa cokkaas rek mu jëm jëfru Aliou Sall dafa yaakaaroon sàcc nañu élection yi ba pare mu ne Aliou Sall ne même buñ ma sànnee xeer du ma fayu loolu la wax de même buñ ma sànnee xeer bu ñuy xeex ak ñun du ñu te ñun du ñu song kenn. Ahmed Aïdara dégg naa def na caravane bu kër Aliou Sall nan ko suñu 400000 sàcc bi Ahmed Aïdara bougé le petit doigt kër ah kër Aliou Sall kenn ñoo fa dem. Assane Diouf ba muy def ba muy def xaw ma lan loolu lan la ko tuddee sax ba muy turne ba muy ba muy wër Dakar caravane xaw ma lan seele seele xaw ma lan de Assane Diouf <laughs> am na daal lu mu ko woon dem kër Khalifa euh, Aliou Sall gars yi dañ ko doon xeex dañ waroon xeex ak foofu kër Aliou Sall mais Aliou la ñoom dañu yaakaaroon ne sàcc nañu élection yi ba pare parce que xam nga la moo leen nax ñi waroon bindu yëpp binduñu ñoom foofu lañ ko jàpp ba pare def nañu ay transfert mais surtout ñi waroon bindu binduñu waaye fan la ñuy juumee fi ñuy juumee ba Aliou Sall def ay spot publicitaire man maa ko seetaat mu naan deuxième mandat bi fi la ko doon wane Sénégal la ko doon wane ak Sénégal surtout Sénégal laa ko day def ay ay vidéo yi 3 minutes 4 minutes. Alissane chaque jour pendant trois quatre jours mu ne beneen yoon dinañ wax ci lii billaahi mu ne deuxième mandat dinaa defar ay école géejawaay dinaa jënd ay kaye dinaa ko jox bi mu yem <laughs> deuxième mandat yow doo wax voté leen ma boo leen ma voté deuxième mandat mais moom pour moom moom moom géejawaay ci laa ne Ahmed Aidara billahi wallahi taala boo xeexul boo xeexul doo gagné tous mais heureusement ñoom xeex nañu seen xeexam mooy lan sécuriser vote ku dëkkul géejawaay doo vote géejawaay Ousmane Sonko loolu la wax loolu la avertir gars yi waa Dakar yéen ñii nar a ñëw ku fa ñëw buñ la rayee sa affaire mais Aliou Sall xool leen ko instant bi dàq nañ ko CDC nekkatul maire géejawaay xana banque na Dakar lig Macky Sall lan la koy def mais nak dañ leen di gërëm dañ leen di gërëm parce que satti nañu ga satti nañu mais satti bi jéggiwul dayo comme ni mu waroon jéggi dayo Pikine lañu satti sàcc ñu ne ñu doole bokk Pikine ñu ne ñu doole bokk dàmbooj nag tax man fofu la ko fofu la ko nawé ndax Sanusi xaw ma professeur la xaw ma lan la nekk fi naan waaye opposition bi vraiment man damay féliciter Macky Sall parce que Macky Sall ah vote bi ñu voté moo tax tey ngeen am li ngeen am yëpp. Gambour ne ko non non non non non non non non processus électoral bi yëpp la sàcc xool leen Jibril ngoom li mu def wala ko Dame Mbodj wax xool leen Kédougou ni ñu raqee ñu ndigg xool leen Pikine ni ñu raqee suñu ndigg. xool leen carte électeurs yi xale yu bëri jotuñu seen carte kon bu leen wax ne gagné nañu rek kon Macky Sall c'est vrai que man maa ngi maa ngi gërëm Macky Sall nag maa ngi koy gërëm parce que bu ko neexoon mu fokkati Thiès parce que c'est Thiès commencé woon nañu Thiès toog nañu deux jours trois jours kenn jotu seen résultat Macky dem waxtaan ak nag njëganaayam Macky Sall gis li am Burkina Faso. Macron ne euh, Ouattara sama yoon nekkul ci Burkina Faso Macky Sall xool xool xam ne Afrique mi ngi changé Macky Sall ne man jeexal naa Macky man loolu laa koy remercier Macky Sall gars man damaa xam nit damaa xam nit kii ne ne bu gaz deli <laughs> ñaata la am sotti na ay milliards de waaye gisul dara Brumel damaa xam nit Macky bi ma gis billahi wallahi taalahi changé na Macky changé na de ki doon wax li fi amoon dootu fi amaat Macky waxatul loolu Macky mi ngi commencé dajale ay bagages pour génn Sénégal ci jàmm ak salaam te loolu dañ ko ci sant di ko ci gërëm Ali Sall defet bii mu am ñu ngi xool nan parce que lii am kenn mënatu ko arrêté yeewu askan bi c'est la force tranquille xam nga li ñuy wax kuy dóor mooy mun kuy saaga man li yeewu askan bi def man vraiment damay jéem a xool lan laa ko war a comparer benn vague déferlante tsunami dégg naa Pape Alenia, di ko wax le yi lu ne lañ ko tsunami raz de marée électorale euh, déferlante xam nga tremblement de terre au côté euh, euh, de Benno Bokk Yaakaar émiettement lii kenn mosu c'est du jamais vu une équipe aussi performante ba pare seen wax ñoom comme ay américain barki rasulillahi gis nga jéewu ak askan jikko bi ñu am jikko américain la américain waxam bariwul gis nga gis nga américain américain seen wax bëriwul américain seen wax bariwul dañuy def li ñuy def ci suuf yow askan bi li yëpp xamoon nañ ko xamoon nañ ne fichier bi baax na buñ mun bu ñu sécuriser vote mais dañoo nopp seen wax bëriwul ñoom ñëpp ay milliardaire la ñu ngi seen oto yu baax yor seen kër yu baax meeting la ñuy ñëw def li ñuy def dem bàyyi Sonko muy circuler et puis ils sont tellement efficaces non gàkku dama kaa fan vraiment gars ku ne da ngay def li ngay def dugg sa 4-4 dem sa kër toog di xaar résultat mu leer na la yaay gañe ba les li français di et épris qui croyait prendre qui croyait prendre épris Nous Nous xam mais lan la ko war a a comparer xaw lan la ko a comparer ngay ngay combat balle, Bombardier très bien <laughs> c'est la meilleure analogie Balle, Gaye nek, ci télé di wax face à face di ratatate di ratatate man seetaanuma am man affaire lamb yi talatuma ko mais Bombardier la dégg mu koy wax mu ne Balla dafa gagner combat bi ci télé yi la ko gagné ci face à face nek rek di wax dina la def li dina def li bo nee na xamone naa ci face à face su ko sama bop day ragal bëri man <coughs> nee Balla gay avant ñuy def sa face à face sax tax mu bëgg mu bëre Balla Gaye nee saa yu ñu taxawaan da ko doon mel ne da kaa ragal Bombardier da doon me wan Balla Gaye mel ne da kaa ragal parce que xam na ne su ko wonee dëgg Balla da koy ragal du bëri moom yow askan bi noonu la naxee Macky Sall Balla Gaye nekk tele yi di wax di wax di wax <coughs> waaye keroog làmb ba première c'est trois minutes Balla Gaye ci la xam ne mënul gagné ñu dellu ginnaaw nan ko kaay bëreek lu ne mu nekk def def yu fi looloo dal Benno Bokk Yaakaar

fii la dem France 20 France 24 ak RFI cette affaire là cette affaire là elle sera traitée n'est-ce pas di tëkku jour boobu dama tiit du ma leen ko nëbbade gars yi Macky Sall bëreetam bëreetam xajul ci kenn jour bi muy wax Marc Charlotte Charlotte Marc Marc Charlotte cette affaire là xam nga buy wax da di ñàngal ñu Macky Sall bu wax ni cette affaire là elle sera traitée

kon ki ba legi dafa jambar lok sénégalais yi ni waye xam lan mo yé Macky Sall étudiants yi fi yi fi yëngatu woon mais surtout Medina. bi Macky Sall li ko gën a tiital Bamba Fall yi tal medina jëppet ci la leen ne Bamba Fall gagné na man dama dama fan Bamba Fall <coughs> dama né sax xawma kan mo nek yow askan bi dé mais Bamba Fall mii mérité na Médina gagné Médina parce que Macky Sall loolu la nga xam booy Médina yi ragaluñu policiers yi policiers yi ñoo doon obligé di daw ñu taxaw ak policiers yi di leen joxoñ Macky Sall nag au vu et au su de tout ça ak li am Burkina Faso ak li am Mali Macky 60 ans rek la am jabaram 52 ans ñu dem ba ci biir xam ne dañuy ñàkk moo tax ñu dépêché Mariam Faye Mansour Faye loolu ko sauvé Mariam Faye dem fa mais Macky li tax ma koy gërëm di ko encouragé di encouragé Aliou Sall bien que ñu ngi ak suñu ay nañ nag dinañu ko delloo mais ñun bëgguñu Sénégal tàkk sérieusement lu may bañ ba bañ bañ bañ Macky sal lu may bañ Aliou sal lu may bañ Antoine Diome man maa ngi félicité Antoine Diome ndax kat jour vote bi man dama ragaloon ne bulletin yi dina manqué jour vote dama ragoron ne bulletin yew askan bi di nga dem HLM bulletin mak wala nga dem parcel Assainies bulletin mak man lool la gënon ragal mais élection yi jaar yu jall jall ñu gagné len defet bi Antoine diom dañ koy féliciter ñun mën nañ len bal Ousmane Tounkara sa wax nako parce que gëmayuñu ñu suñu victoire gëmayuñu ko sax Ousmane Tounkara sa wax nako bo boo lu suñu rew

waa Médina dama leen fan ay vrai vrai guerrier lañ man de victoire u Bamba Fall bi bettuma Macky Sall moo war a muus moo war a muus te dafa muus Macky Sall il est malin il est intelligent jéemul yàq Casamance c'est vrai temps yi am na suñu xaw na yëngatu tuuti mais teggi na tànkam sàccul Ziguinchor teg na tànkam Sonko dem na Casamance guddi muy muy campagne guddi ana ñu ne woon Ousmane Sonko dañ koy rey Casamance Pape Alé Niang sax waxoon na ko bul dem Casamance bul saafaasoog nit ñi bul jaxasoog nit ñi Akhenaton génn di dal Ousmane Sonko da ngaa dëgër bopp da ngaa dëgër bopp bul jaxasoog nit ñi dañ lay rey mën na leen duñ ko rey parce que buñ ko reyee Sénégal jëppët lay def Macky Sall il a compris que Sonko buñ ko reyee moom bakkanam dañ koy rey waa affaire yëpp la ñuy rey Maître El Hadji Diouf moom leen ko muy wax rek parce que xamul li xaw Sonko fu mu deewee ñu bëri dinañu dee. kër yu bëri nañ takk mais ñun bëgguñu loolu kon dañuy gërëm Macky ba mu demee ba ci biir mu xam ne nguur jarul yenn yi nguur jarul rey Sonko parce que ba fi ñuy waxee reyu ko sàccul Casamance sàccul Dakar sàccul Thiès sénégalais la bu réeroon mais dafa mel ne mu commencé yeewu moom ak Marème Faye xam ne troisième mandat moom kenn waxatu

dañ koy forcé carte d'identité yëpp lay génne te bii paa ay yàq liste comme giraas yi du am parce que léegi dañoo dem ba xam ne ñun doole bi ñoo te gis nga li muy jéem a def ay liste parallèle yi day sonal boppam Bamba Fall du ànd ak moom yeewu askan bi lay àndal parce que Khalifa Sall Bamba la bëggoon sax Bamba ak Khalifa Sall ay xarit lañu ba léegi no non Baye Dieng bàyyi na man maay Mister Shake bu ma leen ne Macky Sall bàyyi na rek gëm leen ma waaw kay Baye Dieng dama ko commencé yërëm sax billaahi xam nga nag man damaa baax bu mu ëpp xam nga Baye la ma lay wax ne Macky Sall changé na ñu woo imam yi xam nga góor jigéen yi il faut wax gars il faut ñu jeexal nag nañu wax dernière vingt minutes yi des nañu wax ci loolu affaire góor ñoom kanam li tax ma ne Macky Sall changé na BAD fan nga gisee Macky Sall ñu gagné ko élection mu xam ne affaire góor jigéen ñi bokk na ci li tax mu gagné ko Macky Sall woo imam yi pale pour ñu jàppale ko parce que xam na ne mënul sàcc élection législative te bu demee ci élection législative te affaire góor jigéen bi expliqué wu ko jëllam day gën a métti mu woo. ñooñu imaam yi te ñooñu sax am nañu ay Umar Gueye xaw ma dégg naa duñu ay imaam yu koy jàppale. Macky Sall di jéem a expliqué te ci bi explication bi dégguloo Macky Sall menacé wax na fitna gaa mais menacé wu wax lu fi amoon du fi amaat commencé nooyal sol yërëm bu weex boobu xam nga bees la xaw ma toog pale ma ne ay waay ay waay Macky Sall gàcce ngalaama Macky changé na ay waay dama ko commencé yërëm sax billaahi dama koy yërëm dama koy yërëm. parce que dafa dem ba ci biir mu xamne ne na négocier rek fi sës mu yi jappal len mais c'est trop tard gis nga wa and sa jikko djikoy ak ñoo graw la ilaaha la man motax ba ñu di xex affaire goor jigen mané len ku nekk ak ni ngay xex ma sañon da ngeen di ñëw ngeen and ak Sonko ñu wax ci fichier waye ku nekk ni ngeen di xexé li ngeen def xex bu moko def Macky mom noo la ko meuna attaquer attaqué na mais gis nga affaire goudi jigéen Aliou Ndoul mi nga xamne mom rek ka gagné ak Grand Dakar te man Grand Dakar xaw ni nga dafa gagné ko gis nga Aliou Ndoul mom mo ndik wax mu ne góor jigéen tax ñu gagné len Senegal mo buggul goudi jigéen te Moustapha Niass Abdou Mbow lolo ko sonal ties parce que Abdou Mbow est-ce que dina nekkat député sax non moom gaa dina nekk député parce que xam naa ci kaw lañ koy def mais wóorul de affaire député bu commencé am ñoom Abdou Mbow yëpp Macky Sall mën na leen yóbbu ci ginnaaw ak ginnaaw que képp ku ñu tudd surtout les neuf là les <laughs> eh, yi ñaata la woon VAG est que du woon les neuf les neuf yi ñu tudd ci ñoom ñoo voté ñoom ñoo bloqué loi bokk na ci am na ay jigéen ñi ci tudd Moustapha Niass. te xalaat TV ni mu ko ci wane keroog dama ko xool di ree Sénégal gars ni ñuy xeexe dafa garaaw xalaat TV émission bi ñu def ñu wane les neuf la ñu jël Moustapha Moustapha Niass ñu teg ko ci kanam jël mbaxane couleur góor jigéen bi taf daal koo taf tafal ci bopp bi mel na naa mbaxane <laughs> dama ko xool rek ma ne wuy sama ndey dama ko xool ma ne muy wax xalaat TV ñi gars yi ñoo garaaw gis nga ànd sàmb jikko yi fini diap. jàpp dafa sensible Macky Sall guen def erreur Guen invité imam yi di casse. Gaay daf ko def rek ci suba Aba Ababacar Mboub nekulon Dakar de mais ci gaaw-gaaw def na def na laay Mune imam yi nee nga da ngeen bëgg a gis ak ñun wax leen ma bo leen bëggee gis ak ñun wax leen ma ma bàyyi doon dem sax ñëw Makhtar Sarr def na ci vidéo Karim ku mu xam yéen koy gis ñu ci plateau yi Benno Bokk Yaakaar billaahi wallaahi taala élection député yi yàqu ngeen leen muus ka waane ba gañe ko parce que gars góor jigéen ñi leen ci nit moo tax sax am ànd sàmm jikko am nañu chance bu ñu dajalee xaalis ba am caution bu leen neexee ñu bokk mais damay ragal Macky Sall bloqué leen ñoom ñoom bu ñu defee seen liste ba pare mousquetaire du ñu woon neuf Bayadien defe naa neuf la ñu woon de ñii de mun nañ leen tuddee les neuf mousquetaires neuf députés yu voté lu am góor jigéen ak ñoo am problème Abdou Mbow am na lu muy demee Macky Sall da koy dindi yóbbu ko ci ginnaaw parce que Thiès du Mbow loolu ko gën a daal mënu leen muusu ko waane parce que Macky Sall ñemewul criminaliser góor jigéen parce que bu ko criminaliser waa France bàyyi ko gay affaire góor jigéen dafa garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw ba waa FIFA sax léegi ñoom ñoo ñuy président FIFA xam nga Infantino la tudd xam nu mu tudd di xas Sénégal naan Sénégal il n'y a pas assez de diversité dans l'équipe nationale du Sénégal ma ne mais kii ku mu yàpp te ñoom bu ñuy wax diversité yow nga xalaat ne xalaatuñu ne dañoo gis ne Sénégal joueur yëpp dañoo ñuul pour ñoom bu ñu sañoon Sénégal day am ay tubaab ci biir wala mu am ay naar wala mu am ay ay pël Fuuta comme jàllo boobu xam naa loolu tax sax Aliou Cissé di jël Diallo gars yi ngeen baal <laughs> pour ñoom daal équipe bi dafa war a divers foofu lañ koy commencé dugalal tubaab dugalal euh, pël Fuuta dugalal séeréer dugalal joola dugalal góor jigéen foofu la ñu jëm ñoom mais ñii dañoo garaaw. Macky Sall loolu tax mu am problème ñemewu ko criminaliser du ko mës criminaliser bu ko criminaliser UNESCO dal ci koom France dal ci koom FMI dal ci koom Obama ñoom ñëpp dal ci koom waye bu ko criminaliser wu député yëpp lañuy dakk dàq Macky Sall il est entre le le le le le le marteau et l'enclume damn if you do damn if you don't comme les Américains. américain bo défé dé bo déful dé vrai problème la am gis nga élection yi. gars yi ñoo bëggul góor jigéen xool leen Touba Touba dégg naa loolu tax ñu def 77 pour cent 77 <laughs> pour cent vol blanc vote blanc parce que dañ leen ne boo leen votalee ñoo Macky Sall loolu mooy maire ay maire góor jigéen ngeen voté Moustapha Niass am na problème Abdou Mbow dem leen ngeen seetaan ko soir d'info ak Binta Diallo da koy yërëm sax Abdou Mbow bi wute nag ab Mbow bu arrogant ba ndeysaan dafa yaru léegi Abdou Mbow dafa yaru toog tuuti il était petit ana yaa xam bay dëggatoo ko fenn ana ñu ana waa affaire yi fi nekkoon Birima Ndiaye Birima Ndiaye gars Birima Ndiaye laa doon seetaan jàkkaarloo avant première vague mu yuuxu mu yuuxu gars yi El Malick di ko yuuxu fu malade mooy temps yi muy wax yooyu rek Adji Sarr dina toog Sonko dina toog juste d'ailleurs mais ñooñu ñëpp amuñu moom est-ce que bokk na jàkkaarloo léegi sax est-ce que dàquñu ko Birima Ndiaye est-ce que mu ngi jàkkaarloo ba léegi dafa mel ni ñëpp dañoo jommi seen nguur mooy jeex ñu koy gis te mu nekk ni juróo sàcc moo leen dese Aliou Sall nañ leen lay gañee géejawaay nga ne jox leen ma samay birig xool leen loolu birig yi ñu waroon tabaxee maire Guédiawaye dégg nga gis naa maire Guédiawaye daf ko def comme palais ndeysaan ndeysaan comme palais pour Ahmed Aïdara parce que moom yaakaarul ne am deuxième mandat ñu gagné ko ci guddi gi camion ñëw di jël brique di ko yóbbu mais gars yi xool leen loolu xool leen Bougane waaw Bougane du ma ko fàtte mais balaa may wax Bougane naa wax ñi ki ñu gagné ci waawoon Diop si la xaw mu dem ci stade ba. lelli gazon ne jox jox leen ma sama gazon synthétique des na keneen des na keneen waa Yoof ñoom Diouf Sarr ñu gagné leen ñu yàq ñu yàq mairie ba yàq fa ay documents parce que dégg naa dañuy bañ ñu fa def lépp ñu fa def lu bon ñu ngi koy yàq démb ñu naan la tribunal Pikine jëppeet kan moo ko taal est-ce que taaluñu documents yi parce que dañoo sàcc élection yi on ne sait pas Bougane Bougane wax leen ko du toog seen TV jéem a gérer seen TV balaa muy yàqal boppam sinon dina dem ba mel ne maître El Hadj Diouf Dia xam lan la war dia def jéem a defar gëm sa bopp di xool ndax dina am benn député bu dee moom la mu dem assemblée bu mënul am benn député mu bàyyi mais bu mu jéem sax ñëw na day askan bi di dof dof lo nak ba naan day dem ci mak Sall mom mën senti bi sax mën na fa jugee yàqu Bougane mak Sall nak bu yegol day bàyyi Bougane mu bok Dakar ndax Bougane xëy na bu bokon Dakar dina wañi gëm na sax non Bougane même bu bokon Dakar gisuma kon na ko voté sérieusement gisuma ko koy voté waaw mais en tout cas en tout cas enseignement bi noonu man li la doon ñaan bo gisé ma nek activiste du question damaa bañ Macky Sall wala damaa bañ Aliou Sall man li ma doon xeex mooy Sénégal yi yeewu man lii laa bëggoon man man sama mission accomplir naa ko sama xol dafa sedd ci Sénégal yi man xaw moon na Sénégal yi dañoo mën a wote ndax vote bi boo juumee ba enveloppe bi nga collé ko day nul mais vote yu nul yi sax bëriwul non mais Sénégal nag dafa am ay gars ay nandité la ñu vote nul yi sax bëriwul senegal moo bëri ay nandité suñuy jigéen ay nandité la booy yi ay nandité la ba pare léegi dafa am lu xew encaissé sa xaalis solal sa t-shirt Diouf Sarr waaye boo demee ci mañ gàcce ba nga sànnil <laughs> yow askan booy zaal comédien gis naa mu def ci sketch ñun yooyu lañu soxla ci booy yi ay booy zaal genre sketch yooyu yooyu ñu soxla vidéo yu mel noonu man sama mission accomplie naa ko parce que man Macky Sall dafa dafa ndoroone yàq Sénégal ba mu yàq yëpp bu ñu juumoon ki ne nag futur ministre futur ministre fa lay jaar ba nekk ministre ñoom ñoom ñu toroxal leen euh, euh, euh, Thiès ñooñu ñëpp Macky Sall da leen di sànqal gis nga Macky Sall bu ñu ko bàyyoon ci Sénégal bour lay doon bour empereur ba 2035 di def lu ko neex parce que ñoo ko tàmmal Macky Sall moo ko yàq Marème Faye defet bima gëna contact moy kontaan mooy Aliou Sall billahi c'est une défaite symbolique c'est énorme billahi wallah non victoire bi yalla yalla mo meuna maye yàlla ci boppam moo mën a maye Guy Marius Sagna bu mu demee Casamance loolu la bu ñu gañee Dakar gañee Ziguinchor loolu rek moo wane ne gañe bi man dama ne woon bu ñu gañee Ziguinchor rek rek Macky Sall sax ci wet déjà c'est un petit pas c'est un grand pas mais yàlla moo mën a maye yàlla ci boppam moo mën a maye yow askan bi ñoo baax bu ñu neexoon waa APR dajale seen bagage léegi léegi dem billahi wallahi taala ndax Mansour Faye yuuxu ñu ko yuuxu yuuxu ko yuuxu Saint-Louis Ahmed Aydara toroxal Aliou sal Timbo ñu toroxal ko Pikine Timbo dañ kaa toroxal Macky sal moo la ko gën a xam ñun ñoo baax rek PDS moo moo mooy def yëfu Gloria mais PDS bu ñu xeexoon nangu Pikine te ba léegi sax ñu ngi xeex mais dañoo ñàkk fayda yàlla moo mën a maye mais ñu Dakar sa ennemi ki nga bañ Barthélémy Dias bi nga doon jéem a mu ñëw toroxal la ba pare menacé la tribune maa ngi mairie wala rëbës te man duma dem rëbës mais di wax ak yow di leen wax ak yow comme di wax ak ku mel ne xale Barthélémy dafa mel ne léegi mooy ministre de yi di wax ak te Macky Sall li ma nekk ci moom léegi dafa yaru nit ñaa koy tëkku jàppatul kenn affaire Casamance bi gis nga ñi ñu jàppoon ba faa bayoon bàyyi nañ ci douze parce que Babou Touré mu Babou Touré mu ngoon Casamance mais loolu nag bu koy def dañ ko koy nangul ñun bëgguñu Macky Sall bu dëgër bopp ba Sénégal yàqu ñu rey Sonko rey Macky Sall ñun bëgguñu loolu Macky sal lu mu sàcc sàcc sàcc sàcc jëlal bu dee yow ay milliards ngay wër jëlal say milliards nga dem delloo ñu suñu réew rek loolu rek lan lañ lan la laaj ñun am nañu pétrole am nañu am nañu pétrole am nañu gi dégg na boo nangoo contrat de pêche géej gi boo ko bàyyee mu nooy wat chinois yi ñu ngi koy mu nekk ak union européenne mais bu ñu nangoo contrat yi bàyyi géej gi mu nooy wat at rek jën yi day ñëwaat. Sonko borom xam-xam la Birame Souleye dégg nga li mu wax bu sama benn mbokk ñëw naan utal ma liggéey maire bi Birame Souleye mais Sénégal day dem day mel ni Dubaï pétrole beeg gaz beeg ñoom ñoom clair xam-xam bi ñu am mais loolu jar na ñu bàyyi Macky Sall mu dem ci jàmm ak salaam te ñu bàyyi wax waxu fayu gars yi tamit boo bëggee ñu delloo ñu réew mi dangeen di bàyyi menace bàyyi fayantu ab Abdou Mbow dinañ ko def lii man loolu fan rek laa koy waxee boo ma bëggee rey dama lay rey gat sa gat jëppee Macky bu demee France 24 li fi amoon doo fi amaat sa affaire à la traité affaire Adji Sarr bëgg sonal nit ñi loolu yéen ñu woo ci guerre mais bu dee ñoom ñu ngi commencé gis ñu leen gagné ñuy naw man ku ma ne woon Antoine Diome ak li mu doon xataraa yu yëpp sous préfet ñu jaay ku ma ne woon Antoine Diome dina defar élection yi ñu ko ci gañ du ma ko gëm kon ñun tamit suñu discours il faut ñu tempéré ko te xam ne ñu ñëpp ay sénégalais lañu Macky Sall bu na bàyyi jalgati bu mu jéem a pousse ay élection parce que daf ko arrangé élection yi bu fekkee dañ ko war a pousse nañ ko pousse parce que Sonko moo ci d' accord yow askan bi d' accord mais bu mu jéem a njuuj njaaj na bàyyi transfert électeur nañu jëlee carte xale yi ñu joxe ko Macky Sall gëm yàlla mais 12 ans ci nguur doyul yow gisuloo li am am Afrique xanaa yéen yéen xalaat xalaat lu ne da ngeen di dee mais sous région bi bu takkee ñun ñooy perte français yu bon yi xaar ba léegi di ñu wax naan rey nañu 60 terroristes démb Burkina Faso force Barkhane ma ne yéenay doomeram gars yi ngeen baal ma 9 ans ngeen toog fa reyu leen benn terroriste ngeen bàyyi ba Burkina bi commencé leen dax Mali yi commencé leen dàq ngeen commencé di rey ay 60 terroristes ku ñu yàpp nañu dem na français yi dem nañu génn Afrique comme ay dëmm ñoom romains yi nii lañ leen def dem ba tey romains yi laay seetaan histoire romaine empire romain romains yi yor dañoo yor monde bi 700 ans côté France ñoom barbares yi lañ leen tuddee Allemagne romains yi barbares lañ leen tuddee tuddee français yi barbares. les waa la xaw ma Gaule dañ leen a noot sept cent ans ñuy xeex barbares yi di xeex surtout allemands yi allemands yi dañoo xeex ba romains yi ñii ñoom kenn mënu leen gañe ñu bàyyi leen seen jàmm jéeman après ñu ne xaaral ñu dem ñu bàyyi allemand di xaaral ñu dem Angleterre ba ñu demee Angleterre tamit gars yi di xeex ak ñoom liberté liberté liberté jëmb loolu laa doon seetaan ma ne nag heure Afrique moo jot heure Afrique moo jot te booy yi loolu la ñuy wane dañuy wane ne dañoo bugg tubaab yi dem bàyyi ñëw suñu réew français yi nag ñu ngi koy commencé comprendre buñ ko comprendrewul jëppeet rek océan yëpp ay tàkk coteau yëpp ay tàkk jëppeet Macky Sall nag ñoom ñu ngi commencé comprendre ne mënuloo xeex askan te booy dañoo garaaw booy Medina yi xool lu ñu def élection yi gars yi génn en masse gagné leen dañ leen gagné du d'une manière stratégique yow askan dañ leen gagné stratégiquement jaay leen xel jaay leen yëfu gentleman ba pare Sonko ne leen ñun ñoo leen ëpp doole xale yi ñun la ñu àndal. kon nag lii ma gis nii dal na sama xel ci Macky Sall ne mi ngi commencé dellu ginnaaw moom waxu woo leen ko fi woon neewu leen woon deux mille vingt deux Macky Sall dina génn né du def 3e mandat waxuma lan ko dina ko def parce que xam nga li tax ñu ñak mairie Binta Diallo mu ngi koy wax mu ngi koy wax Abdou Mbow soir d'info xam nga la moo tax ngeen ñak parce que 3e mandat bi Mahmoud Saleh mo ne li 3e mandat lolo tax kon nak Macky avant législative bi dina génn mu ne defuma 3e mandat comme ça ñun duñ ko mëna utiliser di campagne di wax ne bu leen voté député Macky Sall parce que Macky Sall troisième mandat la dina ko wax Macky dina ko wax Macky a changé Macky Sall a changé pour une fois Macky Sall yeewu na yeewu na dafa bugg dund xam na pour dund il faut que mu delloo ñu suñu réew ci jàmm ak salaam te loolu nag bu ko defee ñun ñoo défendre affaire fayantu du fi am bu sàccee pétrole bi daal. suñu six mille nañ ko nangu mais soxlawul ñuy tëj Aliou Sall soxlawul ñuy tëj Macky Sall Farba Ngom soxlawul ñuy nangu ay këram yëpp bu dee dafa am lu mu sàcc vingt sept gàlle nañ nangu dix bàyyi ko dix sept comme ñoom xaalis lañ gëm senegal jar ko parce que tamit sinon coup d'état mooy am Sénégal billahi wallahi taala Côte d'Ivoire pare guñ Côte d'Ivoire coup de Alassane ne coup d'état mën na am Côte d'Ivoire coup moo xew billahi wallahi taala waaw dëgg kii naan ma Macky Sall ne va pas se présenter dégguloo li ma la wax Ababacar balaa législative bi Macky dina wax defuma troisième mandat billahi wallahi taalahi Macky a changé gars yi man damaa jàng psychologie maa xam nit Macky pare na ci complot pare na léegi démocratie lay wax pare na

mais il a peur c'est vrai mais dafa dem ba ci bir xam ne booy yéen xaru la quoi yéen yi xaru la ak iñan lu ko fi jar ray sa bop taal rew lu ko fi jar dara jaru ko fi lolou la xam léegi nak ça ne veut pas dire que du jéem a pour bañ a bokk yakar gañe mais jaralatu ko yénne man na gëm naa ne am na nu muy demee dara Sénégal kon nak boo ñu né alhamdoulillah j'espère que j'ai raison nag te man en tout cas man lol jangat bobu la jangat ci election non damay dem gars damay dem dafa sedd dëkk bi dafa sedd mën na am suba mën na am suba ma defat live mën na am suba ma defat suba la suba la mardi suba ñu ma xolat rek ma jangat actualité bi rek li li a waxtaan ñu waxtaan parce que semaine bi bu sedd comme semaine comme semaine voilà gars live bi Euh, kii nee nañ moom ñëpp dinañ ko bukki incha allah luy bukki man xaw ma yow dégg nga wolof de ah non damay quitté damay damay dem non day dem Macky Sall day dem dañ ko war a remercier ñun nag ñoo leen war a encouragé waaw dañoo tiit dañoo tiit ragal Sonko yaakaar nañ ne Sonko bu ñëwee da leen jàpp ñoom ñëpp dugg leen ci kaso bi mais du demee noonu ñun duñ ko seetaan ñun duñ ko seetaan ñun ñun jàmm lañu bëgg Sénégal waaw.

xoolal Burkina rek Burkina bi c'est grave wa ah, mais nak li am Casamance nak xaw na ñu jaaxal tamit wa ah. non il dafa question clément gis nga nit il faut être réaliste gis nga bàyyi leen ñu dem ak jam ak salam jarnoko parce que tamit bo fi nekké di leen menacer di leen wax naan dañ leen di ray dañ leen di tëj mais loolu loolu tamit day tax ñom tamit du ñu bëgg joxe nguur ga quoi mais buñu leen indilee assurance que ne y' a pas de problème. kenn du fi nekk di tëj kenn kenn du fi nekk di tëj kenn ñoom bu ñu defee li leen war kenn du fi tëj kenn kenn du fi nangu xaalisu kenn dañ leen bàyyi ñu dem ñun Sénégal dafa riche non am na ci loo xam ne moom il ñu rendre ko comme 6 mille milliards 40 ans ñu ndaroon leen fay ay ay ay ay loolu lu ñu ko tuddee euh, royalties Aliou Sall 40 ans ñu ndaroon leen fay royalties 6 000 milliards loolu dañ koy nangu loolu moom dañ koy renégocier loolu moom du mais Kanta ak yenn suuf yi ñu sàcc yooyu mais Kanta di wër ci àdduna bi xool ñaata milliards la ñuy yóbbu ak loolu ñun talluñu yooyu non loolu loolu moom talluñu ko dañ leen di bàyyi ñu def voilà gars yi ñu def noonu. laaj leen partagé leen abonné leen bës leen cloche de notification di sant yàlla di sant yàlla coupe d' Afrique bi. coupe d' Afrique bi moom mën nañ ko gagné mën nañ ko gagné. fi mu nekk si trop tard même bu ñu ko gañee Macky Sall du ko mën a politique bu ko gañee sax dañ naan Sonko la jik Sonko moo ñëw gañe élection rek Sénégal koñe Coupe d'Afrique bu boobaa noonu lañ koy waxee voilà gars ñu def noonu ba suba merci kontaan naa ci yéen live bi neex na tey dégg kii naan bul dem ba suba incha allah suba gëm naa dinaa defaat jeune ne pense day taw si voilà kii nee na Fatou Ndiaye nee na lépp la ñu nangu non duñu nangu lépp dañ leen di bàyyi dañ leen di bàyyi comme ñoom loolu lañ gëm dañ leen di wan ne loolu du dara c'est un gars Sénégal est riche. Voilà. Gars, vous souvenez. Et c'est un atel live, même du coup, live du nec là. Ouh, live du même nec là. C'est un atel. Gardez-vous le saut. Vous souvenez, Inch'Allah.